سفر سفر سفر سفر صلاة لسي في كل سهر وفي سفر عماني على ما هي مع الحبس والسفر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلوات الله وسلامه على عبده المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الوفاء bokki Juli yi ñuy seetaan te dinu déglu ak fu ngeen mën a nekk ci réew yu fasantikoo ginnaaw bu nu santee borom bi subhanahu wa taala julli ca ndawam la abil qasim Sayyidina muhammad sallallahu Alaihi wa sallam noo ngi dellu di yeesal maulana jaayante ci cheikh ahmadou bamba radiallahu taala anhu wa ardaahu nu ngi fab sunub nuyoo ak sunub ziar di ko jottali cheikh muhammadul muntaha xalif général de murit diko ñaanal mu yagg fi lol te wér ba naal yim naalal Cheikh Ahmadou Bamba mu eggale ko ak sagom te ànd ko ak nun xam ngeen ne seen murit ci jotaay yi nuy amal ngir diko wajale fukki fan ak juroom ñet ci safar di magaluk Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu taala anhu wat nanu tay fi ci kër Cheikh Abdou Samad Mbacke mom Serigne sohaybu ngir we ak yéen yoi. nu ngi sant yàlla nag bu baax di julli ci yonente bi di sant Cheikh Ahmadou bàmba di sant Cheikh Abdou Samad Mbacke mi nga xam ne moo waral jataay bii dajale fi nag ay ndaanaan yoo xam ne kenn ku nekk ci ñoom rek doyoon na mu waxtaane plateau bi waaye moom cig yaatalam ak bëgg a wan ne ñiy liggéeyal sëriñ Touba ci waar wi ñu bëggante lañu ñu soppante lañu te mën nañoo bokk benn plateau moo waral sëñ bi doxalee doxin wu mel noonu ñu ngi koy ñaanal mu yàgg fi lool te wér euh, bu dee ci sama ndeyjoor maa ngi feggoo ak sëriñ Busra Sàmb mi ñëpp xam ci waxtaane Cheikh Ahmadou Bamba te man ko lool ci biir réew mi ak ci bitim réew doonatul kenn ku ñuy présente ci sama càmmooñ maa ngi feggoog alxaaji Gànn Mesere maxtar mi ngeen xam ci waxtaane Cheikh Ahmadou bàmba te jekku ko lool fa tabarakallahu di doon ku engagé ku yoon wi ñor ku ñëpp xam ba tey ci sama càmmooñ maa ngi feggoo ak alhaaji Abdoulahi Diop bisiri moom dama koy wax ne ko yow pàggu tee fi Serigne Touba di jàmbaar di ko am éloquence di ko mën a jàngale di ko mën a jàngale Cheikh Ahmadou Bamba kon daanaan yooyu la Serigne bi dajale tey ci ëttub murit ngir ñu waxtaane nag ay thèmes yu fasantikoo incha allahu bu ñu duggee ci waxtaan wi kenn ku nekk ci ñun ci biir réew mi ak ci bitim réew di nu topp di ngeen xam fi nu jëm incha allah alhaji Busra maa ngi lay nuyu. bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ixwaani axawaati asxaab almaali ayuha almushaahiduuna alkiram asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi bokki téléspectateur yëpp ñoo ngi leen di nuyu te di leen siyaare di leen ndokkeel ci weeru màgg wi di weeru cheikhul xadim di leen siyaare yéen ñëpp di ci jiital saahibul fadilati cheikh Mouhamadul Muntaqa mi nga xam ni moom la sëñ Touba dénk yoonam wi di nuyu bokkam yëpp ak rakkam yëpp ak njabootam gépp ak murid saadix yëpp sëñ Ibrahima di la fay ab nuyoo di nuyu sama jarbaat yi ma bokkal plateau bi ñuy ño xamni ni sawar lool ngir daje ak ñoom ndax li dañ koy sante yalla bu baaxa a baax ndax bu neexut won yalla jotaay bi du mëna am di leen ñaanal bu baax di ñaan ci barke khadim rasool waxtaan wi ñu bëgg sumb jëme ko ci serigne touba ngir waajale ko bisam bi yalla nañ ci jariñu jariñe ci barke khadim jërëjëf alhaji busra nu ngi lay sant yow tim bu baax di la gërëm ci nuyo bu tedd bu mag bobu nga nuyo alhaji Gànne masere Maxtaar ma ngi lay nuyo a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi almursalin sayidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima Cheikh Ibrahima ñoo ngi lay delloo nuyoo di wax waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu di nuyu mbooleem ñi nga xam ne ñoo nuy seetaan fu ñu mën a nekk ci biir àdduna bi yépp ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di ñaanal Cheikh Mouhamadul Muntaqa sunu borom yàggal ko fi te wéral ko ba naa yi mu naalal lislaam yépp màggale ko ànd ko ak mbooleem njabootu Serigne Touba gi yépp waaye di beral ab nuyoo Cheikh Abdou Samad mi nga xam ne tey moom la ñu nekk ci ab ëttam te mu taxawal lu am solo lii ñu di ko ñaanal yàlla sunu borom kàttanal ko te dëgëral ko bu baax te eggale ci yéeneem alhamdulilah di nuyu sunu kilifa gii nu bokkal jataay bi di Serigne Bassirou Samb di ko ñaanal yàlla sunu borom yàggal ko fi te wéral ko lool ndax kilifa gu yaatu la gu tabe ci darajaam goo xam ne waxtu wu nekk. daf nuy soññ ñun ñëpp dinu gën a teg ci yoon wi dinu gën a laaye biiree di gën a dalal suñu xel kon yàlla na yàlla gën laa yàggal nuyu sëñ Abdoulahi Diop Bichri yi nga xam ne moom la ñu feggool moom it mu nekk suñu mag nekk ku baax ak sëñ Ibrahima Fall Lam bi nga xam ne moo yor tey kaddu gi moom it nekk suñu kilifa ñu di ko ziyaara bu baax ak mbooleem bokk yëpp wasalaamualeykum wa rahmatullah jërëjëf alxaaji Gana Messere Maxtaar ci kaddu yu rafet yooyu noo ngi lay sant di la gërëm kon noonu la ñuy joxe kaddu gi rek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 أيها الإخوة والأخوات أيها, المست... أيها المشاهدون الكرام نرحب بكم ونسلم عليكم بتحية أهل الجنة ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عليكم السلام mbokki جلتي yi mbokki taalibe تديني mbokk yu tedd yi ni topp yépp nu ngi di jiital ci kàddu yi sant yàlla sunu boroom julli ci yanant bi alayhi salaatu wasalaam santati seexul xaddim di jaaraamaal maam Cheikh Ibrahima Fall buntu yoon wi di ñaanal sëriñ Muntaqa Bachir mi tooge jataayu seexul xaddim yàlla na yàlla dolli ko wér te dolli ko kàttan mu yàgg lool ci sunu kanam di ko ñaanal mbooleem njabootu seexul xaddim bi di nuyu ak a ziyaara sëriñ Abdou Samad Mbàkke Soyibu mi taxawal jataay bu am solo bii lépp jëm ci luy dundal xam-xam ak lu ñuy gën a soññi ci wane liggéeyu Seexul Xaddim bi yàlla na yàlla sàmm ko te fay ko nu ngi bég lool ci jataay bi di ziyaara sunu kilifa di kenn ci nun di xutba bu mag ci ñun ñuy waxtaane Sëriñ Tuubaa yépp di royukaay boo xam ni moo xàll yoon bi ba tey ñun ñëpp ñu ñeme ko te xatalu ci kenn te bari na koy jariñoo ci moom ay sutur ag fépp ci waxtan muy alaaji busra sam yalla yalla sam ko lol yagal ko sunu kanam ba ca kanam kanam di beral nuyo alaaji Gana mesre Mokhtar momit di jambar ci yoon wi di ku bëgg serigne Touba jeex ci tak nga xamni ni lay waxe ci serigne bi kep ku bëgg serigne bi sa bu waxe sa xol sedd ci mom nga ñaanal ko yalla gëna yag ci barke serigne Touba di beral nuyo sering Lamp Fall Ibrahima mi nga xamni ni dañ ko jël ngir modéré jotaay bi waye li ni def dakku nuko ndax xam-xamam bu bari ak geejjom gu bari ci serigne waye jikko mi rafet yalla yalla sam ko ta fay ko ñu ngi nuyu kilifa yeen fi fekk yeb di sante ñep di balu ñep haq di bal ñep di am mbégte lol serigne Ibrahima Fall Lamp di la delo kaddu gi inshallah ba ci Alhaji abdullah Job bisri bokk yi ñuy seetaan ci rew mi ak bitim rew nu ngi bëgg genn goor borom karabat yi nawet yi waral marakiisu noor yi. Bayu basak bara, magi cernook masamba serigne cheikh Ibrahima Fall ki def ñett yu jafe dem ci geej gi ñibisi dem gannar ñibisi dem jolof ñibisi Ramlo domi soxna yi soppi ceddu yi ay serigne koku lañuy bëgg waxtani nga xamne lu baax lu nek jël na la ci gën lepp lu ñal lu baax la serigne touba def nako wax nako bind nako alhaji gann meser nee na ngor na yalla ngor yonenti bi ngor alquran serigne bobu nga xamne kenn du mom te du kenn mom lañ bëgg waxtani inshallah rabbi kon sunu laaj bu ñëk ñu ngi ñëw ci alhaji ganna masira maxtar ku ne xamne cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu dafa amon pas pas, am ak dogu ci nekkuk wayjuram ci mbacke kadior nga xamne ku nek xamne ne daari serigne mor antassali université la won ci jojo jamono ndax mom ay étudiant la yoron ndax mom professeur la waye amutone ay élève fu ne ci rew mi mbooleem turux yi ak doomi soxna yi dan fa dan tak di fa jànge ji serigne bi nek ak wajuram wowo diir bu gat wane fa ak njambar bind ay téré ci jamonom ba wajuram diko di kon serigne gann dag ñuy tambalel mbacké kadior wacc ak ñun ñew mbacké Bawal jóge fa ñew daru salam jóge fa ñew touba jóge fa dem mbacké bari ba ni bi waje natou bi ngir dem ci geej gi ci tënk bu gaaw foofi rombu nga bëbëstal ko ngir xam nañ xajut ci guddi te xam ñan daanaan la bismillah jeuf Cheikh Ibrahim jeuf bokk yi setan euh muy tomb bu am solo ni fatli ak nafarat lenn ci jaar-jaari serigne bi mi nga xamne waxtane ko ak fàttaliku ko mooy yërmande yàlla mooy xéewalam it euh, étape bobu nu wara a tàmbalee it di Mbàkke Kajoor dafa bokk ci bele yi nga xam ne way juróom Sëriñ Mbàkke Mor Anta ko euh, ku ne xam ne way di sering mbake mor dafa nekkoon aalim nekk aabid waaye nekk it bu di xawsu nekkoon koo xam ne boroom xam-xam yi seere nañ ne géeju xam-xam la goo xam ne daf daan ball wat gune way mar yi ñëw di ca naan si loolu nag eh, kenn ci boroom xam-xam yi bi muy tagg Sëriñ Tuuba da ko ca indiwaale moo tax ma wax loolu Euh, muy ku wax sëriñ ma Kan Dingiraay dañuy wax ne bokk na ci ñu jëkk a tagg sëriñ bi bi muy tagg sëñ bi booba sëñ bi ci fukki at ak nangam lay topp toll boobu mu ngi ànd ak way juróom sëriñ Mbàkke moo ranta sëriñ waaye ba mu ko gisee rek dane ko kii daal moom mboolem siècle yi war a ñëw yépp no si jaam ñépp mi ngi ci ñaari téngam daal kooku nag mooy Ahmadou bàmba mi nga xam ne baayam mooy géej goo xam ne day baawaan ñëpp a naan defe naa ma nga waxoon ne innal xuruuna bila sunya azimmatihim fi raxatayka li yanqaadu ma an qaadu hada la ahmada bamba kaana walidahu bahrul ulumi namiril maai mawruda kon loolu tegtale na baayam melowoowu maam ba mu jógee moom Sëriñ Mbakke Moor Saalum ca woote boobee Maba Jaxu woote woon te ba mabba shahite mu ànd ak Lat Joor ngir atteel ko waaye xam nga ne dafa bokkoon ci lim sartante ak Lat Joor mooy lu bokk ak moom benn pays lu bokk ak moom benn dëkk loola waral bañ fa jógee mu ñëw kër Amadou Yàlla moom mu dem sañ ci paataar nga xam ne bu talaata jotee mu ñëw di ko attesil li jëm ci biirum diine yeeg tooñ yeeg ya ca aju bés yi ca dellu desaat nag mu delluwaat ca daaraam di jàngale ak di yare bi Lat Joor jógee foofa nag ñëw sugeer moom it mu sañ ci Mbàkke Kajoor Mbàkke Kajoor nag diir bu gàtt la fa def ndax ñaari at rek lay war a toll suñ boroom dogal mu wàcc ab liggéey waaye diir ba mu fa nekk yépp it sëriñ bi moom dafay taxaw ci wetam ni ko Cheikh ba Bachir Mbacké wax ne diiru fanweeri at yi Sëriñ nekk ci ron way juróom yépp du taxaw du taxawal dara lu mooy ne ci ron way juróom rek waxtu wu ne muy sàkku di bind ay kaamil di ko wecciku léegi léegi la ca bàyyi ko mu di ko def ci yitteem wala mu di ko def ci yitteey sëñ Mbacké moo na tësali ba teel a dajale ngërëmam yooyu yépp ba ba ñu demee ba ca dëkk boobee mu sanc fa nag di euh, mbakke kajoor ba ñu démé ci atum sësin di 1300 ci gadda yu gàddaayu yonent bi alayhi salatu wassalam ci wéru muharram way juróom genn aduna señ mbakke moor fekk boba daara ji fess na del nit ñi bayiko non ci fann gu nek señ biit wote gut ci way juróom waye amna na boba ñi ngi jaayante ak señ bi te boba way juróom fi bari na ci mag ñi ñoo xam ne ba ñu ñëwee ca daara ja di jàng si bu ñu gisee sëñ beeg ni mu mel rek dañoo jël seen bopp ko ko jox loola moo tax bi way juróom génnee àdduna mu ñu indi ko deqale denc ko ba ñu noppee ca denc ba it dafa delluwaat Mbàkke Kajoor waaye diggante boobu it sëñ bi wane na fi wax na fi jëmuwaayam leeral ko àdduna ndax xam nga ne sëñ Ahmadou Ndoumé Mar Syll mi nga xam ne moo doon taxawee sëriñ Mbakke Mor Anta Sali di ko jullee ba ñu dencee ba noppi nag ba ñu dajalewaat mbooloo ma yépp dafa laaj sëñ bi ne ana Ahmadou Bamba sëriñ bi wuyu mu ne bismillah jegesil sëñ bi ñëw ba sës ci mbooloo taxaw ngir ay tegginam bañ a xuus ci biir mbooloo mi mu ne ko noo ngi lay jaal sa way jur wi waaye di sàkku ci yow nag nu dem ci buur bi fi nekk jaal ko sa way jur wi ndax dendandoom la woon léppam la boo ko defee sax mu mën laa teg fa mu ko tegoon nga féete ko fam fa ko sa wayjur féete woon bu ko defee mu féete la fa nga xam ne it fa féete woon sa wayjur daan ko te loolu nag gisuma ci lu muy aw yiw sëñ bi ne ko noo ngi leen di sant ndax mbirum jaal mi moom ne la waaye nag dox jëm ci benn buur jomm naa ko malaaka yi di ko seele moom foofee nag ba sëñ bi waxee loolu te toll ci fanweeri at mbooloo ma dafa xajale ko ci ñaari kuréel ñenn ñi dañ ne kii moom yàgg nañ leen wax ne xel mi gàtt maanaam dafa dafa dafa dafa dafa wéradi ndax bokkul ak nit ñi ay gisit lu jiitu loolu. waaw bi muy ñëw. dafa doxi Mbàkke Kajoor dox dellu. waaw nangu te war ci dara. waaw xam ne ñaari kuréel la kuréel bii day wane ne kii xel mi dafa gàtt. sa fii la ñii ñoom it jàpp ne kat pouvoir yu rëy yii ak ndombal tànk lu toll nii kuñ ko proposé defe naa waruloo am genn bëgg lu may daw jëm ci loola waaye sekk sëñ bi moom. bokul ak foofu aw jëmin ñu ci nekk it ke kuréel bu ci nekk it sëñ bi tontu na la euh bi ci jëkk bañ ne ko demal ci wuri lo fay jëlé ay cadeau ay payor yo xam dana la soutenir dana bax ci yow daf ko waxal bopam qalu li yarkan li abwaabi salaatayni tahus jawaisa tugni kulla ma xiini fa qultu xasbi rabbi waktafaytu bi walastu raadiya xayra al almi wa diin ñi nga naan ma ci تخوك جوائز دانغام اي بايور يو خامنا تورني كل ما حين وقتو وني دانا لو وامرال سوتونير لا مانلين مان نك مان نك مانلين فقلت مانلين حسبي ربي يالا دوينا ما لا يالا دانا لو دوكو دويلو واي مان وقت فايتو به تا ناكو ني نو بولا يالا دويلو nga دويلو كون كون فو جيم مون ولست راضيا خير العلم وجي ak lu mu yag yag kenn munuma jëmlo fenn man genn bëgg la am muy xam xam ak lam ca tontuwaate cay gën a yéeme mooy wala su arju wala axsha siwa maliki li annahu jalla yugnini wa yunjini foofu la tawxid yëpp man day du ma yaakaar baa may ragal ku dul yàlla ngir bu ma ñàkkee yàlla may woomalal bu ma nekkee ci njàqare moo may muccal bu ma yitte moom ma koy fajal te yéen sax lii ngeen may proposé ku ne naan ma jëmal ci buuri adduna yi waaye bëgg poñaxiit bëgg dara نم يوبيت مدام تي اتي نيغا خامن سين اتي اتي شيطان لا فكيف يبعدني حب الحتام الى جوار من دورهم رول الشياطين ني جابنا لولو ايب لي تي موم ان كان عيب زهد في حطامهم فذاك عيب نفيس ليس يخزي ولي وان جيمالين وون غيناو ددولين دم سما ايب اه لولو ايب جو غانيار لا ايب جو فور لا jàqaloowuma tilluwuma ñàkk gi àdduna de awma ci benn gàcc ñeena xel mu gàtt mi la mu tontu leen qaalu safihum li kaw nii lam axaf axada wa ma rajawtu siwa arrahmani di qadar qaalu safihum li tafwidi ila maliki amri anil il kawni fi safin wa fi kadar nee samam xel daa gàtt ndax ñàkk gee yaakaar war a ragal ku dul yàlla wala jublu keneen ku dul borom subhanahu wa taala yàlla rek laa jublu yàlla rek laa am yitte ci yàlla laa soxla nan laay jëlee sama mbir nag man Ahmadou Bamba fekk ñi nga xamne ñi miskin lotte ci seeni mbir lañ lotte ci seeni mbir may jël sa mbir di len wor di len ko wekk ane u fawidu ahwali liman ajazu an hali anfusihim ajisal masakin in kuntu da hazanin aw kuntu da watarin da'atu zal ayn qabla rai wa shini buma jaxé ba ma tidal borom arsalay wota moy borom bi subhanahu wa taala ta moy al almuayin bi nga xamne moy aji dimbalaa kon gi nga xamne ne lu ko soob mu am lu bëgg mu am mu am lu bëggul du am kenn mu ko amal loolu bi mu amee Cheikh Ibrahim sëñ bi toogaat na ab diir nekk ca daara ja di lijjanti waaye jógewaat na fa nag defaat tuuram boobu nga xam ne dem na fi gànnaar dem fi ci bërëb yu baree baree baree bari seet fi ay nit ñu baree bari yoonu gànnaaru jëkk woowee loole bokk na ci ba mu dellu siwaatee nag nga xam ne lu tollook at ak ay weer ginnaaw wéyum juróom sëñ Mbàkke Mor Anta Sali la jot ndigal lu bayiko ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam jóge ci borom mom ñëw ci mom ci mu tuxo ci halu tadris nak ñëw ci halu tarqiya lolu mo wara rabbi ashabaka bil himma wala turabbihim bi dars faq faqat yeenaka laa mujaddidan li hada al jil lutax bu yam ci jangalem kesse kat yow yàlla daf la tan def la ngay mujaddid bi nga xamne ya wara yeesal diina ji kon nak wa rabbi kullu wahidin bima yaliqu bi kenn ku ne la yell ca moom ca yar ak tërbiya na nga ko def gis nga façon yu tërbiya yu wute yii sëñ bi doon di tombal ñii di rootloo ñii di taxanloo ñii loolu li koy indi mooy kenn ku ne la yell ca moom ci tërbiya na nga ko ko defal ndax ku ne xam na lan mooy dimension am xam na degereem xam na ruuxam xam na lan mooy tabiyaam ba mën laa seet ci yoon moom lay sóob ba ñu demee ba ca weeru koor wa ci asas di 1301 wala doon soli 1883 wala 82 mu xëy woote Cheikh Mahamadou Lamine Diop Adagari nee na dafa dajale mbooleem mag ñëpp fere yi te jàng andi leen mu ne leen nag képp koo xam ne jàng rek moo nekk yitteem mën naa ñëw dem nag seeti keneen ku ko jàngal wéyal am njàngam topp aliwaam waaye wa araada ma araad na fal yasir bi sayri na koo xam ne nag lii ma bëgg la bëgg ah na ñëw nag doxe niñ doxee waaye na jël mbiram bàyyeenu lebih Lamine Diop daga neena bi bi sëñ bi waxe lolou da ca bolé ko dogu dafa dem wax ko rek dem fat neena mbolo ma fa des nak di waxtan ñi di tan ak dess tok fi mom ñi di tan dem ñi di tan téye seeni xarit ngir bañ dem mhm. neena ba mujj nak fa dhahabal jul wa baqiya al khul mhm. neena mujj la ëpp dem nak la neew dess waye taxul sëñ bi neena gess ci lolou ndax ajjumaam joojee ba mu ko wootee ñetti nit rek a jëkk a jaayante Cheikh Adama Gueye Cheikh Ibrahima Sarr Ndiagne Cheikh Massamba Diop Sadji hmm. noonu mag ñi toftaloo di jaayante ñëw kenn ku ne ala sam wa ñëw jox ko sa bopp ci ne ko loo nekk ca laa nekk loo wax ca laa la ca mu tàmbali taxawal nag yoonu murit ci ndigal lu bàyyi ko ci yonent bi alayhi salaatu salaam ñëw ci moom ba muy wootee it mu wax ne wóotewul moom lu mooy yàlla ndax njàccaar wala silmaxa bu bëggee dox ci aw yoon fala budda mu am nag njàccaar ju koy wom nu joxob tumam bi borom bi subhaanahu wa taala di wax ne yaa ayu alladina amanu ittaqu llaha wabtaxu ilayhi alwasilata wa jahidu fi sabili ñenn ca tekkikat ya dañuy wax ne bañ bëggee dàq dañuy wax ne euh, na ngeen xam ne wasila googu nag amalu salihat waaye bañ ne wattabi sabila man anaba ilayya mooy ñu ne bëreet jëm si man topp ma na ngeen ma wut xaw nañoo am tuuti nangam nangam ndax ma leen sotee egg ci yàlla te amoo wasila moo tax mu woote ci yàlla moo tax Cheikh Ibrahima Jóob almashal wax ne fa ma min muridin yabtaxil wasla duunahu si waa siaman ma in lahu da raqaidu nee na amul ku bëgg egg ci yàlla wan ginnaaw sëñ Tuubaa lu dul gumba goomul njàccaar di ko wombat waaye sëñ bi bi muy woote néewut ne ñëw leen topp ma waxul ne ñëw leen jox ma dane ku bëgg li ma bëgg jëman dem yàlla laa leen di joxeñ jalla fal mujibi lahu riban wa naajin wa muhtadin ilallaahi hmm. xanaa kay ñoom ña ko toppoon bàyyi seen xam-xam bàyyi seen juddu bàyyi seen lépp topp ko lañu wax a gën a wér sëriñ mansul Diaw mi moo ne sëñ Tuubaa yàlla kese la woote moo tax muridullaahi ku namm yàlla ñëwoon dem mu ne ku ko wusi nag ki woote boobee mu woote nag yàlla defal la ca ngërëm defal la ca mucc defal la ca jub jërëjëf sëriñ Gana képp ku ko wuy si ci woote boobu mu woote yàlla defal la ci ngërëm defal la ci njub defal la ci sa xemem teefu adduna ak àllaaxira tegal sa baaraam foofu maa ngi del si ci yow waaye dafa mel ne dama dégg ci sa biir wax nga mel na sëriñ bi ci sasin muy mille trois ci la Mamor Anta Sali génn àdduna te sëñ bi ku nekk xam na ne ama saraa la gane àdduna xat wuli dal qadimu man xat saraa sariatul muxtaari ama saraa ama saraa mooy mille deux cent soixante-dix mille deux cent soixante dix boo ko moyee ci mille trois cent trente ans képp lay des xoolal googu dogu kon Serigne Touba bi muy taxawal yoon wi ci yéen ndaw ñi li ngeen ci war a jànge mooy fanweeri at la am bi ma Mamadou si li génne adduna sëñ gànn nee na dem na gànnaar dem gànnaaram gu njëkk googu waaye les certains auteurs dañoo wax ne dafa jàngi woon arab booba waaye déglul sëñ Basiru nee na laata muy dem bind na Mawaahibul Quddus waaye ci Ummul Barahin reprendre ko ba way juram diko jangale ci daara ji serigne mourad Anta Sali ko serigne Cheikh Coro ak serigne serigne Afia mamour Mor janggalal Sali jàngalal na len kudus. mawahibul Xudus mu reprendre manam téré bi ñu al Nafis nga xam ne al akhdar yu la ci way ta boba jamono rek la ko reprendre reprendre bidayatul hidayah bu Imam Xazali tuddé ko Mulayyinu Sudur kon serigne diam bamuy dem gannar leneen la fa wuti won lu am jang waye ci dogom gu mag rek da ngay gis ne bi sëñ Mor Anta Sali génne aduna ñu di ko dekkali diko di ko denc daf ne mom day dox day dox dox dem dox dellu si kon sëñ Gana tegal sa loxo fofu ma ñew ci Serigne Bousra sambu ñewal ma ci le 10 août 1895 bi Serigne bi takkaloo fasam woowu genn nak wara dajek nonam yi jeewal te bis bobu di bis bu tis bo xam ne waral magal gi ñu jup si Serigne Bousra sambu euh, jerejef serigne Omar ah ya, ma ngi lay woy turu sa wajur xamona sa baay serigne Omar Fall ci kaw la xam ak serigne sama ak no maase xam nga kaddu ak euh, katan ak barke ci baay lañ koy jëlé barke la xamoon sa wajur bu baax motax sama xol sedd bu baax serigne Gana jërëjëf ma ngi lay ndokel ci waxtan wu rafet nga def yalla seere na ak seigne touba ni di len déglu ngeen di wax fi mu moma dakal di di waxtaan ndax sha allah waxtaan wi rafet na lol te wér lol te lépp tegu ci namu mu rek ndax seigne touba mom lepp fépp fu mas jaar rek tërjëma nañ ko bind nañ ko muy ni nga ko netlé def ga parcours bu rafet ci diggante ama charan ba mu feeñee ba bi mu wootee bi mu wootee itam nag noonu nga ko waxe ña ko topp topp ko jamono daldi di salfaañoo aslëf ndax ña ko topp sëriñ bi di leen yar ci baabu tarbiya ci bunt bi tarbiya ñu nangul ko jaayanteeg moom ñu gënal ko léppam bu tuflee ñu far wann bu nàccee ñu naan lu mu yàbbi ju sax ku ko mas a gis bu sa bët dalee ci boom ci jëmmam bis boobee nga ko gisee ba keroog ba ngay génn àdduna foo taxawati day mel ni jëmmam a taxaw ci sa kanam ku ko mas a gis moom sañ Tuubaa bis ba nga ko gisee mooy bis bi gën a texe ci sa dund ku ko gis fàtte sa lépp fàtte ñëpp ñu topp ko muy dox jëm ci boroomam ñuy dox doxin wu sell jëm ci moom àdduna bépp teg ko bët nag mu wan gannaaw lépp daldi toxoo mbàkke kajoor googu nga wax ñëw mbàkke bawol gi nga xam ni mooy ardul wilaadaam fi la jëkk a gise jaww ji ci zaahir fekk muy dëkk boo xam ne bi dëkkub maamam la mu bokk ko ki bokkam Mbàkke def njaxasum nit waaye li ci ëpp lépp kon jolof di ay sëti maamam sëñ bi ca kersa ga ak teggin ya ak ñàkk yàkkamti àddunaam tax nekku Mbàkke googee ak mag ñi àndoon ak moom rawatina Seex Ibra Faal Baabul Muridiina daal di révolutionné doxin wi nag ndax nangootul ku maslaa ci sëñ bi nangootul sëñ bi maslaa boppam nangootul ko ko jox benn loxo nangootul ko ni nàmbaala mbaala nangootul ko sukk fi kanamu sëñ bi tàllal sab tànk wala nga jox ko benn loxo loo ci def rek mu jubbanti la te sëñ bi xam na ni Ibra Seex Ibra mi tam lii muy def yoonu boppam la ndax ba muy door a dem Mbàkke Kajoor waajuram di tool a door a dem léeg-léeg nit jëfandikoo noo xam ne nii wala kenn bëggee jàjj ci mag ñi day wax bàyyil defal ni yàlla mën a faj te bàyyi ndax kii faj lee mu ñëw kon kooku xamoon na ni Cheikh Ibra Fall dana ñëw bi Cheikh Ibra dikkee foofu sëñ Tuubaa teg ci kaw doxin woowu nag metti na ci njëlbéenu Mbàkke sëñ bi toxoo Mbàkke sañ ci Daaru Salaam foofee xad ishtihaari alqadimu fi hadihi al ahwaami al arbati siiw na fi lool nag nit ñi di bàyyi ko fu ne di ko dégg ñii xam-xam bi la dégg ñii wilaayatu gi la ñuy dégg ñii jegg gi ci yàlla la ñuy dégg ñii dëddu adduna gi la dégg kenn ku ne ak li la li ngay kumpawu si ci moom bi mu sañcee daaru salaam sax fa ab diir génnati fa sañc lewam bii di Touba nga xam ni am na particularité ci suufus adduna si moom Touba ndax dëkk ngi boo xam ne bii Serigne Touba nee na yàlla def na moo gënal yàlla ak rasulullahi ci kaw suuf wachal ilahi wa wal tajalu ya rabbi ahaba maskani fii ardina lakka walil maahisani dëkk ngi boo xam ne bi yàlla lañ fi jëkk a jaamu yàlla rek lañ fi mas a jaamu kenn ku du yàlla mosu koo moom monsieur su fee su jot ci xiram monsieur su fee tuural deret ku dul yàlla loolu it feeñ ne ba dëgg ni sii ci foo mën a duggee dëkk bi di dox ba bëgg koy génn da nga gis worma ju yalla wormal dekk bi ci do tek sa beut mukk ci koy xoti wormay diine di ŋàbbu pon ci loxom di dem mba ko def yaramu neen di dem da nga xam dal dekk bi yalla mom na mom motax señ bi wax ni sha'allahu ya rabbi ahaba maskani fi ardina lak walil maahisani bi mu ci dekk bi jurom ñaari at la fi am jurom ñaari at yoyu ci la ñeen fukki atam mate ci la giseeg rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fii jaayanteeg moom tukkeem bii mu yen bu diis bu metti ñu wan ko ca liñ ko ca wan dig ko ca lañ ko ca dig mu nangu ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yebbi na ko ci yebbi mu ta ko ndax dama laa bëgg ngir yaari yëf yaa ma sa doon yegsi ci wirasatu nabi wirasatan kaamilatan sirran wa alaniyatan te amagoo ñeent fukki at yaa ëpp loo ma tagg ci mboolem ku ma sa taxaw ci kaw suuf kon nag li yàlla waxoon Moussa laay wax fa xus aati aatiitu ko wan kunna shak wa na shakirin sëñ Tubaa ne rasulullahi dimbali ma te bu ma yërëm moo tax képp koo bëggal ndam da nga koy dimbali waaye doo ko yërëm mu ne ko dimbali ma rek te bu ma yërëm luñ ma teg lu mu diis diis diis su fi fekkee ruu gi nga xam ne moom ma ko yàllaa ko moom warlu naa jom ju ko attan ak ngor gu ko attan ak gëm gu ko attan ci la jaayanteeg boromam yoonu géej gi tukkeem bii dal di génn Touba ca kori woowee loolu aw koor la a bay sa Chine ñu wari mu sañ mu dem dëkk bi ñuy wax Mbakke Baari Mbakke Baari soriwul mu ngi fii ci Jolof alxaaji Mouhamadou Fadil Mbakke bi jumaa jumaa jéegee bi muy bi ñuy programme tëli bii nga xam ne moo war a jóge Touba dem Jolof dem Linguère moo sakku teli bi jaar bi mbacke bari motax mu romb ko mo jaarale teli bi jël jojolof ci barabu mam maram bi moko ko mbacke bari mbacke ke gogou googu di bi wax ahmadou Soxna bu so moko fété woo don domi mam maam maaram sëñ Touba wat ci dekk bobé di mbacke bari bi muy dem dafa namone bu ko ko fen fek waye lu ne lu mës a def ko bam dess ma fi ken fek lu mës a def nañ ko bam dess des barab sàngam bu fa kenn fekk bi mu demee Mbàkke Bari aw kor la fa dem aw diggi aw tëbaski aw tamxarit aw diggi muy weer wi nga xam ne tey la benn panam Sëriñ Tubaa nee na li ma xamal ni sama ñaan nangu na mooy iblis ràbb ñaari njabar genn gi mu sànni ko ci xolub sëriñ su xañaan si ak tubaab yi ñu fiire ma ak àdduna genn njabar gi mu sànni ko ci xorob doomi soxna yi dir bu gàtt ne sama keur gi fess dell ak bataaxal tuba bi nan ma yaay beug def nangam yaay def nangam yaangi ngi fexe nangam te xam nga ni leg iza arad llaahu amran hayya lahu asbaban yàlla suna me mbir mooy manigancé ay sabab sëñ bi ci nimu doxé ak trajet bi mu jël ak itinéraire bi mu jël ak mom ki mu doon faaw nak def na ay inquiétude ay njàqare ci xoli tuba bi ndax bi nga xamante ni bii Kajoor tas na damel yi jeex nañu en 1886 barag ci wàllu daanu nañu buur yëpp daanu nañu nga xam ne Sénégal léegi doon na protectorat duggaat na ci loxol France ñu doon ba ñëpp sëñ Touba euh, teewee na ci kanamam tubaab yi noot leen rey leen ña nga xam ne ñooy famille famille aristocrate yi nga xam ne ñooy doomi buur yi ak lawax yi ña ci bari dañoo daw réfugié wu ci ginnaaw sëñ Touba moo tax tuubaa gii. doomi soxna yoo fi way askanal ko ci kajoor mbaa jolof mbaa njàmbur ñu ñu di gor seen maam ya doon bañ démb ndax bekkiti ceddo yooyu yëpp dañoo daal di daw dugg si nag ci yoonu murit loolu tubaab bi xam na ko ba noppitam itam Touba gii sanc gi nga xam la création de cette ville de Touba aspect bi mu yor géographiquement loolu dolli na inquiétude dolli na njàqare tubaab yi ndax Touba aw nat la nekk ab réew moo xam ne surface limitrophe la jigéewul bopp gaar jigéewul bopp dex climat bi hostile na waaye nag mu jige réew yépp nag mu jige jolof jige njaambur jige kajoor jige jige nga xam ne suuf la soo xam ne si stratégie de guerre la la nuuru tubaab yi nga xam ne bu sëñ Tuubaa takkoon bu xare réew yéppay màbbandoo loolu tubaab yi remarqué na questionné nañ ko ci Tuubaa avancé gi mu avancé ba dugg jolof nag te booba jolof itam desee mokk loolu gën a tee dolli njàqare tubaab yi tubaab yi nag di ko bind nag ànd ak mu fàtti soona yi ak rej yi ak rambaaj yi waaye booba di sëñ tubaa wax rek moo wér muy sababu xaybati an allaha araada an anaala minhu jaaha wa an akoona xaadiman fi daw mi wa an akoona shaafian li xaw mi yàlla daal di indi ay sabab yoo xam ni lu ci nekk nag dafa nuru lu tubaab yi mën a seen loxo ci nangam lay fexe nangam lay fexe ànd ak it sëñ tubaa ci boppam du mii xam nga miim miim jàmbaar du miim ndax ñetti juge rek am ñetti attekat rek am yàlla dina atte yàgg dana atte temps dana atte ndax wala fi ne bu njaab yàggee rek nga war feeñ waaye xaatir dana atte kenn ku ne man ngaa atte sa bopp ndax bu ne nangam ji yéen ñanti yéen a ko sàcc ki ko sàcc xam na ko ki ko sàccul xam na ko sëñ Tuubaa moo tax du miim tuuma yooyu yëpp mu wéeg moom ba bi ko suñ borom digalee ni ko di ko tontul bindal benn bataaxal képp wax li fi yow te jox leen ko teggil sa tuuma ci la sëñ Tuubaa bind lettre am bu mémorable boobu nga xam ni ci loxol boppam la wax ni moo ko bind jox ko borom daaru mu yóbbu ko ndar waaye fekk na xat ku diyeen amru fi saabixa ilmi tabaraka wa taala moom xamoon na ni dana dem ci géej gi dana tukki liggéey li boromam ca bisub ñeenti fan ci weeru safara ca la waajoon bëgg a suñ borom ni ko toogal ba ñu digal la ko mu toogaat amaat fa daanaka ñaari ay bis ba ca su fukk ba ak juróom-ñaar di ajjuma di juróom-ñeenti fan ci weeru août 1895 ca tàkkusaan sëriñ Tuubaa nee na ci la gis rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko naa wërale la te wutaluma tata ji bunt luy tàkk ba jubla dina fay dara du la mën a dara wa jaala almuxtaaru sallallahu alayhi fi al ali wa man loxoo xijaaban maa ne xam ne dara su ma loxum si xaala laa tax sa xarar sëriñ tubaa nee na ku yàlla téel sa cumikaay sa gannaaw du laal suuf guddi googee sëriñ tubaa dafa fanaanee wer ak boo demee mbàkke baari gis néeg ba nga xam ne moom lañ fa takk gis xasirit xasbuna allaahu gi nga xam ne moom la sëriñ tubaa taalif keroog muy guddi wax set mu waaj ba jekk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xamal ko ni boo xëyee boo jullee fajar ba noppi bu dellu si gi sëñ tubaa waaj waajtaay woo xam ni na rek la ko ci yàlla fayee muy waajtaay wu toll ni wii murit yi waaje bisam bi xam nga ni bu fekkente ni li wolof yi wax dëgg la ñu bis bu ne dimension borom lay yor barke sëñ tubaa 18 safar kenn mënu ko jox àqam su fekkee bis borom lay tollool bis bii ci kanam kenn jox ko àqam kenn mënu ko nit nag bu bu jeexee ci mbir rek wàcc na bu ca dee wàcc na bu ca jeexee wàcc na waaye kenn jox ko akam ndax sañ Tuubaa bi mu dem ci géej gi dàll weñ la tëggul woon te dégg ku tëggulu dàll weñ moo gën a yomb gis ku ko def te moom la defoon moom dàll weñ la tëggul woon bi mu dem ci géej xëy gaawu di fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar di bis fukk ci mois de moo tax datu 10 août boobu ëpp nay fàttali fàtte ndax moom la tubaab yi xam tubaab xamul Chaabaan xamul Ramadan xamul Shawal xamul su su xëy tubab xamul gàmmu xamul rakit gàmmu tubab janvier la xam février la am xam mars la xam yoy lañu xam motax bis bi fi seigne tubaab jóge won no xam 18 safar waye 10 août gi nañ ko ci bolé ba xamni tubab tubaab moy la plus sanglante défaite bi len seigne tubaab jëk a affligé ci kaw souf fukki fan ci wéru bisu gaaw seigne tubaab julli fajar ba noppi ci kër gi bi mu ndé bay bëgg dugga ci kër gi lam xaram dem ci lim jaayanteeg rasulullah sallallahu alayhi wasallam mu taxaw ci digënté jàkk ji ak buntu kër gi ne na sama bagage yëpp fekk ci kër gi fekk ci mbéd bi mu ngi sol ay xaftaan yu sutaate ak jàllaabi jël ay jàllaabi du su neex noonu Cheikh Saalihu Mbakke daan solo sol ay yére yu sutaate ay xaftaan ak jàllaabi jël ay kaala laxas ko ca ndiggam la ba ca dënnam ba lépp mu yeew ko ay kaala muuru ba tuut di feeñ ci xar kanam bi bu xoolee moom Sëñ Tuubaa nga defeen kanam gépp kawar la bu gëmmee nga defeen bu xoolee nga defeen kanam gépp ay bët la bu gëmmee nga defeen xaram gépp kawar la mu ne ci ka alxuraan sori lool ñu indi gaalam ya ak maxtume yi itam yomb naa xàmmee ndax mbolam gal gi demu ci géej gi wenn njàpp rek la am ci dig bi ñu takkal ko fas ñox wër wét muy fas ñox awnu awnullaahi muy ndimbalul yàlla muy fas wo xamni aw mol la ñu andi fas yi ba ci buttu jàkk ji Serigne Touba neena bañ ma téyelé dégelu fas yi ba ma yéegee ca fas ka fas wala gouvernement bi yàlla bépp war ànd ak man rafiqi kitaabullaahi wal mustafa nabi wa ashabuhu fil barihin adu kéro Serigne Touba ngi naan inni lam arju siddiqan wala akhaf adwan ragaluma sama non yimi bëgg dajel yaakaaruma sama sopp yi ma wër zimaami bi aydil jundi daaru maay la daa zawil jahli wa tadlili aw na min alam ila nasrina qad saarahu maqyulihim wa qaafal ida minhum bu maadu ila salam gis naa bayit woo xam ne ci la sëñ tubaa ñaane ne yow yàlla nëbbal tubaab yi sama baatin buñ ma gaaw a xam nañ ma jàppi benn waay rek lu leen neex teg ma ndax ma mën a am li ma bëgg ndax buñ ma xamee ni Ibra Fall la ñuy def gis naa fu ko sëñ tubaa bind dafa wax ni wa bihi zahzahil ahadiya an nii wal ka sun lii an hum dawaa man bu tóodi sëñ Tuubaa wax loolu leen sama bàttin bu ma xam kookoy góor kookoy jàmbaar taali bi bëgg taxaw ci ginnaawam sàppe ñoom ñëpp avec un seen yaakaar ya yolom lool ndax xamuñu lii fu mujj xamuñu fu war nañ di mujjee ki bëtam boo kurul yàlla boromam ak rasulullah ñu muy liggéeyal ak moom ahmadul xadim xamoo lii bëgg a xew ndaxte tukki boobu moo ko mas a tukki ñu dee di ko la ku tubaab yi ma sa jàpp sa bàmmeel sor na sa bopp say bopp ku tubaab yi ma sa exilé fële leen doxee tàbbi géej moo tax toujours mooy wax ni exil égale exécution pure et simple tubaab bi mosuñoo jàpp ku dellu si waaye sëñ bi dafa wax ni la in xarra nii man xarrahu zannu xaasidan fa maa xarra nii man jaa ani bi takarrumi fa man yulxi nii fil bahri lil jahdi zaqilan faqad jaa ani fil bahri juudul mukarrami fa man sadda an nii fal mawaahibu aqbar mooy lii من الواحد المخلي حفظ المقدمين لب لو خدني نرى خي بابا ادنو تكي سنك با وخنا ممكن يالنا نو يالا ما ينفك تول باري واي فك لب اجن رجل نكو ديف كوكو موي سرين بي تي بي سوب غاو بابا موار بي مو ييغي تي كاو فاسام وا مورجا وركو دا فا لاج ني انا لي ماي بغا ديف لو ген تي خام في ما جم لو ген تي خام لي ماي بغا ديف لو ген تي خام نيوم نيب نيو ني تيل نداخ نيوم mu ne ana Ahmadou su ne Ahmadou tekk rekk nag te tegu ci wenn tur sëñ Mandoumbe lay wax su ne Seex te tegu ci wenn sant wala wenn tur sëñ Gaawaan lay wax mu ne ana Ahmadou sëñ Mandoumbe dafa daal di dama am xar rek wëndeeloo moom daal di xaacu ca kaw ko mbàkke na ba dara dekk nan dee ba jeex mu ne ko Ahmadou wéeral xel lii nga wax dëgg la ci waaye lii néew na doole lool ci ñuy bëgg a dajeel taxawal te déglu ma daal ni ana Seex sëñ ne ko loo xam mu ne ko mbàkke woon ma la xamee ba tey xaw ma dara ma ne tubaab yi boo leen joxoñoon ñu tàkk nga jër leen nit doomu naawit du tee keroog laa lay gën a gëm bu la joxe noonu nga tàkk di lakk ba doon doom ñu jër la nga naawit keroog laa lay gën a gëm ku mu laaj rek ñu ëpp ci ñu tontu seen yi seen xel dafa gën a lëng ci jihaat ci jihaat ñoom ñëpp seen xalaat di gën a lëng rek ci mbàkk xam nga kii nan ba jeex moom jihaat rek la kii sëñ Tuubaa ni ana masam ana ana Abdourahman sëñ daam ni ko mbàkk mu ne ko Abdourahmane lii ma bëgg a def loo ci sa xalaat mu ne ko Mbàkke laajal sa borom li ngay def mu wax la ko nga def ko te noonu nga wax noonu ni ñu def nga def yow laajal sa borom rek li ngay def nga def ko te noonu nga wax noonu nu nuy def ñu ko àkk saa Abdourahmane irjama walaazimu taatillaahi inni awdatukum man maa awdatuhu shay'an wa xasalati maay suur yi toog leen te muñ bu ma liggéey bu ma liggéey ñëpp danañ añ moo tax sëñ Tuubaa wax ni yu yubashiruhu zanni lazi qaadani ila duaai fa bashir man ataalu li naxba baa ci baatu luxa mooy ku yëkkat booba ñoom ñëpp a ngi nangoo naa ci làmmiñu ku ma doy muy sëñ Modou Kane Baye Mourtala war nga koo xam. Mhm, bu baax. ñooñu ñooy suñu formateur ak ñoom sa sa jërëjëf euh, El Hadj Boussra Samb xam naa yaa ngi dëgmal jeewal te jeewal dafa am importance ci tukkib sëriñ bi. ndax jeewal li ñu tuddé badar dafa répété wu wat ndax ku nekk xam na ni nga ko waxé iblis dafa rabbu ay njabar sanni ko ci ay xol yetti xol dafa ram rabbu genn njabar sanni ko ci xolub sëriñ si ñi diko firé ndax hàddiyee ji ñu koy jox ak di xawé ko ca garab ya di dalu ci suuf lu wax kenn du ci tek baat te booba amul lu ak ak ngay gamu ñu sarax la ginaar Sering bi di laaj addiye ñu di ko ko jox di ko ki joy mu ràbbaat geneen jabar sanni ko ci xoli sàmm ñu ne mom kat day occuper souf ci te bu occuper souf ci nun dootul am pour sàmm mu ràbbaat geneen jabar nak sanni ko ci xolu ceddo yi ñu ne mom kat kon da koy wut nguur ci turu diine ko ci menn maam nguur rek la bëgg parce que tok ci kaw ñepp tok ci souf nga naan yalla neena na di la jir ñu di la jox wax deug yalla loolu dafa neex kon mom nguur lay wut ci turu diine wa adxalal illahu fi qulubi man tasababu fi naqlihi zaaka zaman ixraajuhu ila al bilaadi naaiya wa naala fiha fawxa samin saaniya kon mu nga dëgmal jeewal gi nga xam ne dafa répété wu di badar ndax badar dañoo wax ne iblis dafa soppaliku suraaxatu bnu malik ñëw daan leen di wax ne wa xaala laa xaaliba lakum al yawma wa inni jaarun lakum bu leen am lu ngeen di tiit ndax maa ngi ànd ak yéen waaye ba mu gisee jibril rek mu war ci ko wax ay suum daf ne wa qala inni bariun minkum inni ara ma la tarawna inni aqafu allah wallahu saddidul hiqab man kat ma ngi gis lo xamni gisul len ko kon man bayina dawna motax seigne moo Moussa fajarub gaaw bala dam rañane bari dajek tuba ba daal di yendu jeewal fanaan fa bóod ya rëy duñ ko siwal kérok la jëk gis ahlu badrin ba mu subag dibéer lañu ko dar nee kérok keroog ngelaw mu lam doon rambal jibril la yor gogom ba mom la andal ka annahu ka annahu wax wa far ca burdu moo doon dexinu far fa loolu lim ci jublu mooy ka annahu wax wa fardun fi jalalatihi fi xaskari na talqaahu wa fi xasan yonent bi sallallahu alayhi mu nekk kenn ci digg xare ak nekk ci mbooloo ñoo yem kepp kon moom njàmbaar googu nga xam ne iblis feeñuwaat na keroog ah, Serigne Touba ngir badar gu répété wu kon yaa ngi jëm si jeewal foofu ngay teg sa loxo ma ñëw ci Serigne Abdoulahi Diop Bisri sering bi xam nga dafa dem ñetti voyage ñibbisi te serigne bu sala nee kenn mësta ta dem delusi mu dem ci geej gi dem gànnaar bi mi dem nak dafa am lu taxone ñi di fa yobbu moy buñ ko fa yobbo nit ku ñuul am complexe sub naar bu fa démé ña fa né ci ay boromi xam-xam go xamné abdullah Abdullahi ibn Alawi yu ma nga fa gànnaar go xamné Mualla ma nga fa gànnaar go xamné Muhammad ibnu Asan ma nga fa gànnaar go xamné manam bandi day maan nga fa gànnaar go xamne serif surafa surafaaw nga fa borom xam-xam yëpp nga fa yor der bu wex bu fa serigne touba sori na nit ñi duñ fa mëna dem ñaarel ba nak moy bu fa wote ay talib du ko am ndax nar ya ko upp xam-xam kon serigne Ablaye Diop ga bisiri serigne touba nan la toje gànnaar bannaar yi ci mom di ramal wa waa kay jërëjëf maam Cheikh Ibrahima Fall jërëjëf alaaji Busra ci waxtan wu am solo wi ak alaaji Gana yalla yalla sam cheikhul khadim radiyallahu anhu xam nga bimu mu ci géej gi ndax damay bayyi sama mbokk yi ginnaw buñu wëyel mm-hmm. man comme ci gannar nga ma laaj bi mu ci géej gi juroom ñaari at yu top ñibbi ci 11 novembre 1902 ci la ñëw bimu mu dem na ndar ndar diir bu gatt la fa def fukki fan ak juroom mu yoni maam Cheikh isa jenn borom Dieng nek Lagan mu dem ko wool boroom daarul moxti jàmbaaram ja ñu gise defe naa tey moom la ñuy màggal ci nisfu Saxbaan ca daarul moxti ba mu fa jógee dafa jabal si Louga fa la ume kooram googu ci fin 1902 bi mu fa umee koor diir bu gàtt mu jàll siise ñeenti fan ya ca bari jàmm siise juróomi fan ya la ñëw kër sañ Siréloo sànnoo si fa la nekk di leen naafal ba fa la korite sanno seet lu bari xew fa fa la jàmbaar ji nga tuddu legi seigne Ibrahima job almasar yi jébbaloo fa la ko sëriñ Tuubaa jomale won ci bor bi mu amone muy boru juromi temer te mu sadd ay woy neub woy ya njabotu bopam xamuñu ko jox ko yàlla sunu borom fa àlla ya adyunun aqsamtuha bainal kirami la ala an yaqduha bind ca euh, bayit yu rafet muy bor yi ko daloon mu ni séddale naa ko ñeenti saaba yi Aboubacar Omar Ousmane Ali ak Seydina Mohamed mii seen sang di sunu sang ñu ñëpp jël lettre boobu suul ko jël li ñuy wax njarwañ geenu fas li ciy sew mel ni kawaru jigéen ñi li ñuy léttoo moom la ko lëmase daal di suul lettre booba ca Kajoor booba Seexul Xadiim a ngi ci géej gi jugeegul ci tukki bi 1902 googu mu ñëw bi mu tollee Sànnuusi ci la yàlla dogal sëñ Mor Absa Diop mii wéy juru sëñ Ibrahima Diop almasar yi yebal njaboot gën ziyaare ci seexul Khadim ndax booba Sànnuusi ñépp a ko doon ziyaar si di ko ndokkeel fa la sëñ Ibrahima Diop almasar yi ñëwee ba mu ñëwee ba nuyoo Cheikhul Khadim bay génn sëriñ bi woolu ko ba mu delsi sëriñ bi wax ko ni sa bor ba yëg naa ko ni ko laata ngay toog jox ma mbuus moo mu def koppar amoon na juróom benn téeméer sëñ bi berloo ko téeméer yi juróomi téeméer ya mu xamal ko ni Abu Bakar nee na téeméeram a ngi ca bor ba Omar nee na téeméeram a ngi ca bor ba Ousmane nee ngi ca bor ba Aliou nee na ngi nii ca bor ba ni ko maa wuutu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sama téeméer a ngi ca bor ba keroog la daanu jëllu wax ni amatul cofeel ci Bagdad amatul cofeel ci Faas fu fekk Sëriñ Tuubaa ci Jolof jaay na fa ay nokkeen مالي لبغداد صوك لا ولا فاسي لكن برؤيا جلف خد بعت عن فاسي ذاك الخديم خديم لا يماثله من قل أو جل من جن ومن ناس ذاك الخديم الذي خد فاض ضائره وباع من لم يزر بالبوس والباس دم بيتك مني وسار يغبطني من كان مسكنه في بدن بغداد أو في مصر أو فاسي ponkal moomu nga xam ne bind na lu ne ci sëñ Tuubaa foofee la jébbaloo woon jox boppam sëriñ Tuubaa mu jóge Sànnoosi jàll na ci bërëb yu bari bokk na ci bërëb yi mu jàll ñaxal bokk na ci bërëb yi mu jàll kër Mandumbe Xari bokk na ci bërëb yi mu jàll dem na fu ñuy wax Mbàkke Kajoor ziyaare baayam sëñ Ibrahima Mbàkke mi nga xam ni moom Maamoor Anta bokk lépp bokk na ci bërëb yi mu jàll dem na Daaru Salaam waaye Daaru Salaam mu fa ñëw ci 21 janvier 1903 mam Cheikh Anta borom deureum ngeureum rakam ju deugal ja ganale ko ngan go xamni ni ñetti fan la bis bu jot juróom-ña fukki nak ak juróom fukki geleem ak fuki fukki xar ak juróom fukki bëy ak juróom ba juróom-ñetti fan yi mat mu nar nit rendi ko ngir le serigne Touba ci ñibisi gi ni bu ko nit ñepp yegge njanaaw yi sax war na ni serigne Touba damay teral tan yi ku ñuy wax askamara moo ni woon day tëdd ñu rey ko jox ko tan yi askamara moomu nag taalibe sëñ Seex Absa la woon bu mu joxoon Mamor Jaara borom saam yàlla dogal sëñ bi goreel ko ba mu fa jógee la door a jàll ci daarul mannaan daarul mannaan nag mu indiwaat coow li ko yóbbu gànnaar ndax xam ngeen ni bi sëriñ bi ñëwee daarul mannaan diir bu gàtt dafa am lakk gu ko dal bi lakk gi amee mu dem daaru alimul xabir ndaam toog fa ab diir yebal taalibe yi ñu defaraat kër gi bërëb boobu nga xam ne borom daaroo fa newoon bi ñu defaraatee kër gi mag ñi defar ko ba noppi sëriñ bi sant maam Cheikh ibraahima Fall ak maam Cheikh Anta borom daaru salaam ñu jëndi ay meubles yu ñu installé ci kër gi ñu demoon ndar di ko jëndi bi ñu jëndee lal yooyu ak toogu yooyu def ko ci ay saak sëf ko ci kaw gëléem yi ñëw ba tollu dëkk bu ñuy wax googo ci wetu ndar ci la ñu dajeeg benn pël bu ñuy wax Demba Ngari moom moo ñëw fekk na agent secret la mu laal ko ci loxoom daal di signalé ko mbaaxaan ni seexul xaddim daa mel ni génne gi ñu ko génnewoon yóbbu ko ci géej gi da koo metti ba tey mu ngi waajal jihaat pour jëm si ci seen kaw loolu yàq na xelu tubaab yi bi nga xamee ni mbaaxaan bind na rapport mbaaxaan tam tuuma yooyu bi mu amee mu tuumaal Serigne Touba ci nasaraan bi ni leen day préparé jihaat moo tax Serigne Touba ngeen dégg ca yaa jumlatan xat sallasoo bi dalalihim من لم يكن له ولد أو والد أهرجتموني ناطقين بأنني عبد الإله وإنني لمجاهد وزننتمو أن المدافع عندنا والكل منكم زو قلة ويحاسب فما قالكم إني أجاهد صادق إني لوجه الله جل أجاهد إني أجاهد بالعلوم وبالتقى عبدا قديما والمهيمن الشاهد جيني وقت نجمة نيو وحني دماي دف جهاد دماي دف جير سنت dama denc ay ngànnaay ci sama kër te ñoom ñi koy wax ñëpp kiñaan moo leen jàpp ak bañ lu baax ak nangu ni jaamu bi yàlla laa bu koy jaamu tey liggéeyal yanant bi alayhi salaatu loolu nag bi mu amee ñu tuumaal sëriñ Touba ci daa yor ay ngànnaay ci la tubaab bi nag woote booba chef de canton yi ñoo fi ëpp galon ñépp ay dikk wuy si wooteef tubaab bi ñu daal di wax nag ni sëriñ Touba lii ñu ko jiiñ nu mu demee bi ñuy laaj nag bahkan wax ni non la demé dafa yor ay ngannaay té dina dem visiter jiko ñeneen ñi ci dugg ñepp ruuxale ñu yaq xalaatu tuba bi ci la nak ku ñi wax buur ñew sérel seigne Touba seele bu rafet mo wax nasaran bi leen ñu tumal seigne Touba amul cheikhul khadim mi ma xam yalla kep ko ñor ak yanantu bi ak alquran man de ci dola waye duma fekke ay tiaxan serigne Touba dencul ngannaay wajalul guerre du togn nitu jàmm la ñu ne ko yow buur siin kii ngay défendre lutax nga koy défendre mun dama nangou deug rek motax ma wax leen deug gog ñu ne ko li nga wax suñ démé ba yek ni denc na ay ngannaay lepp lañu tek ci sa kaw ci daan folli la nga ñak say galon mu ne d'accord na ñu ne ko suñ démé ba gis ni liñuy tuumal tuumaal suñ amna doto tek dara ci nun mu ne nanguna na tamit nga xamni mo tuumal tuumaal touba momit di def ay yitte pour touba bi gëm li wax ci la buur nak nag yonne ndawam mu dik gis ci serigne Touba borom daru muxti la dajal bam ko waxe borom daru mu ne kon nañ and dem ndam nga wax serigne Touba li buur siin wax bañu agge ci ndam serigne Touba déglu ko mu ni buur siin ma yónni tuu tuuma giñ la tuumaal tamu défendre la léegi nak touba bi dañu ragal ceddo bi la dafa am jikko ju doy war man nañu jël ay ngànnaay gaw ko sa keur ba pare gëmloo ni yaa ko fi def fekk defoo ko fi loolu lay ragal nag pour setar honneur am comme défendre na la bëggul nu bàyyi fi ay ngànnaay ci loo yëgul taqal la sëriñ bi nag nangu wax ju rafet jooju ca la dajeeg buur siin wax ko ni moom sëñ Tuubaa lii nga may defal loo ci jublu mu ne ko dara mbàkke dama bëgg loolu ñuy wax dawkat ab xaj na muy àndeek boroomam bu ëllëgee naa ko mel ci yow ci biir yow mal xiyam ci àjjal sëriñ bi xam ne li sincère la ci moom mu ne ko sàllaaw doo torox fii doo torox fële doo folliku fii doo folliku fële dinaa la fal fii fal la fa ñu jëm ndax lu rafet lii nga ma waxal daal ni ko li nga wax nañ ci bàyyi ay xel taaliba yépp génn nag gaaw kër gi wër ko ngir bañ saay-saay yi dugal fa ngànnaay yi bi nu ñëwee itam gis nga visite bi ni mu demee xam ngeen ni gaal yi sëñ Tuubaa yi lañ doon bënn di jàll ci kaw xëy na dadul teggin di ci jaara ndax kooka léegi mujj na tuub ba mujj na yaakaar maam Cheikh Ibrahima Fall tudd Abdul Xafoor waye ci bobu jamono dal tek nañu fitna yu metti keur cheikhul khadim serigne bi ne bal du na ñepp dal ta tok ci la bindé qasidam gi nga xamni moy rabbi maestro muy ñaan mu wané ni suñu borom garanti na ñukoy wolu tribunal nak ci atum 1903 gog muy dem di wuy ji ba tuba bi décider ni dañ koy yobbu soit Madagascar wala ñu yobbu ko Mauritanie ñu am deux choix te ñu ko yobbu Madagascar ñu ni wala te ñu ko yobbu Mauritanie fekk na boba Cheikh Sidiya Baba an anhu di sëriñu xaadar bu mag nekkoon gànnaar di kilifa ci xaadar ya bëgg sëñ Touba lool ñu waxtaan ak Cheikh Sidiya ci mbiru sëñ Touba mun leen man de yàlla rek a tax may wax ak yenant bi sama maam Cheikhul Xaddim liñ ko tuumaal demewul noonu sëriñ Touba de du tooñ ñitu jàmm la du tooñ du yàq ñu ne ko ndax buñ la dénkoon sëñ Touba di ñu ko mën a téyel mu ne waaw lii moo waral ñu décidé bàyyi Madagascar dogal nak ni Serigne Touba dañ koy yóbbu gànnaar lolou moy zahir bi waye batin bi Serigne Touba ko waxal bopam dani man zanna sayri ribba ama aksasin misla masiri rahsa ama jaysasin sabata kawnahu jahulan ghumra bal huwa tatyibul ali lil umra lam yakku sayra aksasin siwa jaza man liya ba'du wa'danan jaza cheikhul khadim dafa wax ni képp ku njorti ni sama tukki bii ma tu may tukkiwaat ci gànnaar ci atu 1903 mooy ak sësin dafa tolloo ñu mën koo comparer ak tukki bi ba demoon ci géej gi muy atu 1895 ki njort ni benn lañ ñoom ñaar ay nattu la kooku dafa réer xamul li xew nee na kooku dof la te ku réer la mm-hmm. ñu ne ko lu tax mu ni sama tukki ci géej gi ay nattu la woon yu ma yenu ji ngir turu islaam sama tukki gànnaar nag ak pay la buma yalla wara fay ruminere ma jox ma sama salaire ta ganar la ma ko ndax nitu yalla ya nekkon gànnaar liggéeyal fa seen borom dañ fa bayyi ay leer yo xamni leer ngay ball ci seen kaw xabru ya ta warna dem jëli ji loolu lepp ci payu yalla sama borom fofu la ma dig kon zahir bi lañ tuddu nonu leeral la historique bi mais batin bi fay la gu Serigne Touba di jële ji gànnaar bi mu ñëwee nak mu dem Sarsara nu yobbu ko Sarsara bi mi demit xam nga Cheikh Sidiya Baba miñ ko booleel moko wara gatandu mu yoni ñaari ndawam jox leen ay gëléem serigne baa duggé dagana bi mu duggé dagana nak dal di dem jere jeuf Cheikh Abdullahi Diop bisri tegal fofu sa baram damay del wat ak yaw and ak yaw nu and ak serigne bi duggu bir gannaar ak xar yam fa def dafa melni ni nga nu le 11 novembre 1902 bi serigne bi wacce waxu Moussa Siri yëkkati loxoom yi te ñu day bakku hmm. mune sama bak nga ca kanam mooy bu sama sooroor ya taxawee mu jaar foofu nag def wërëm boobu mu wër ba ñëw sànnoosi ñëw kër mbàkki sam baabu noonu mu wëree kajoor ba ñëw daaru salaam daal di ñëwaat daaru mar naan ruuxale yi tàmbaliwaat ba nga xam ne nag ci la faboo nag ngir war a dem gànnaar mu waxal boppam nag ne man zann sayri e xibba ami ak shashi misla masiri req si ama jay shashi zabata kaw nohoo jawlan xumra maanaam képp koo xam ne da nga japp ne sama tukki bi may tukki gannar dafa bok ak bima don dem ci amba jeey ci neen abdof nga gannar mom dama fay jël ak pay serigne bi tuddé ko ardu salihin difa fekk gaay yu bax yépp kon ma ngi dil ci wal tak yow ci kanam nga dugg ak man gannar gog nga xamné serigne touba toj nako fa ku fa mësa dugg rek joxe nga sa bop way bëggo fa talibé serigne ganne ma ser ma ngi dil ci wat ci yow yow damay dil ci wat ci yow ngi won mbacké kadior serigne bi nak joggé na mbacké kadior ñew mbacké bawal santigul daru salam def fa ab diir ñëw sanc daaru salaam jóge daaru salaam ñëw sañc Touba ñëw nag daaru xuddoos fi la gise yonent bi sallallahu alayhi wa diggante boobu tarbiya gi mu doon tarbiya murid yi di yar ci himma rabbi ashaabaka bil himma wala turabbihim bi dar si fa xat wa rabba kulla waahidin minhum bi maa yaliqu bihi nga xam ne kenn ku ci nekk dalay laaj bi nga xëyee ba ñaata baat nga fi nga génn ci istixfaar génn ci salaatu ala nabi génn ci jàng alxuraan la ci dess di larax mu ne bu ëllëgee bu mu amati dem ba manam murit yi di nuyo ak malaka yi di dox ci siiñi sakket di nan dox mu tang diggante bobu la bëgg nga jëleel ma sëriñ bi Mbàkke kadior dik ak mom Mbàkke jaar ak mom Daaru salam ñew ak mom Touba Alhaji Gana Messere jere jërëjëf Cheikh Ibrahim jërëjëf sëñ Bouchra jërëjëf sëñ Abdoulahi Diop ci waxtaan wi ah, sëriñ bi bi mu yoon bi wax ne ku namm yàlla na ñëw ñu dem woote ko ci Mbàkke Kajoor mag ñi jaayanteeg moom ma wax la ne ba muy woote dana yàlla rek ci laa woote ñi ko wuy siit loolu rek lañu àndaale mag ñi kenn ku ne buy ñëw la muy wax sëñ bi ñëw naa tey di gan fi yow waaye li ma tax a ñëw nag bëgg nga bernee la ma ko mooy ngërëmul yàlla kon ngërëmul yàlla loolu rek leen andi kenn ku ci nekk boo demee ca mbindum Cheikh Darou Assane moom nga cay fekk boo demee ca mbindum Cheikh Mouhamadou lemin ngay Jammoo yi moom nga cay fekk ba ci ñoom ñëpp kenn ku ci nekk sa yitte rek mooy am ngërëmul yàlla nga xam ne melo woowu tax ba mu jógee ba mu nekkee Mbàkke Kajoor nag dafa yar taalibe yi yëf yi mujj xaj xat sëñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana nee na minhaaj bi nga xam ne moom la yor sëñ bi yoroon muy méthode bi nga xam ne moom la daan tërbiya mooy daan leen xiifal di leen marloo di leen sikkarloo di leen beruloo rawatina sax jigéen ñi waaye ba mbir ma siiwee nag ñu tàmbali di fitnaal yenn murid yi di leen xatal waxtu wu nekk sëñ bi di leen delloosi di leen muñloo di leen xool da ci saxaabatu rasul di wax ne seeni seen baay ci diine ndax daj nañ lu gën a metti naq nañ leen ci ay ndox walal nañ seeni deret nungu nañ seeni alal genn nañ leen seeni kër ba tey seenu tag na fàng ci alquranul karim bu ko massa wax daana leen ci tegal lil fuqara muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaxuuna fadlan min allahi wa ridwana wa yansuruna allaha wa rasulahu as-sadiqun na ngeen muñ ba egg ci ne leen xanaa dana leen doy ëllëg bis ba nga xam ne yow ma naddu kulla unaasin bi imaamihim bis ba nga xamne bu ñepp dajé kenn kuñ sa turu njit ci lañ lay wo buñ leen woyé yeen mouride mo bu ma leen wujjilee de dana doy ci ku leen daan reetaan wala ku leen daan doye dal ba yëf ya mu joggé fa ñew mbacké bawal def fi ab dir mbacké it niko cheikh bu waxé bu señ bi daan julli ji naan hmm. yobale cheikh ibrahima fall hmm. cheikh ibrahima fall motax señ bi tuxo mbacké lu ne xewna fa waaye Cheikh Ibra daa mës a nangu ku jiite sëñ bi bu nit masaa nekk ci sàppe si bu keneen masaa jiitu buñ kàbbaree Cheikh Ibra day daw ci biir sàppe yi di wax naan adoom ah, sëgg nangam siggi nangam sëgg nangam siggi nangam <laughs> mujj bi sëñ bi di ñëw danaan bàyyi bu ñëwee ba ci yoon wi day bàyyi Cheikh Ibrahima Fall ñëw agsi ba am na yu ci xew yoo xam ne au fi baax umur ma la jibin <laughs> hmm. ginaaw bi sëñ bi ci dëkk bi ñu wax daru salam di dëkk bi mu njëkk sañ mu sañ ko ci dësës muy 1304 hijriya dëkk boobu ci weeru wii di safar la ko ci muy daru salam ñaan ci borom amit mu nekk dëkkub yar dëkkub tarbiya dëkk boo xam ne dëkkub jàmm la ndax rabbi biha min al wara ma la yuat ya khayra man rabba wa khayra man waat muy dëkk boo xam mag ñi fa lañ tambalé di di jaayante waxtu wu nek ku dégg sëñ bi rek ñew ba mujj dëkk bi xumbu lool jaxaso bi tambalé am ñenn ñi denc seen bokku ñew di sétsi bi jaxaso bi baré nak mu bàyyiwaat dëkk bobu di daru salam ci wësës di 1306 jël dëkk ba ak juroom ñeen fukk do nga juroom ñent rafaatale rakam Cheikh Sidil Mukhtar mam Cheikh Anta Gaawaan mm-hmm. daal di ñëw ci dëkkam bii di tuubal maxruusa muy dëkk boo xam ne bi mu fiy ñëw euh, wër na ci béréb yu bari ci aneer yépp ngir di dàkk béréb bii muy xool li fi nekk ndax béréb la boo xam ne euh, mboolem gaa yu baax yépp fëx nañ da wuti ko ngir bëgg ko am muy Touba waaye Touba moom tànnal boppam ku tedd ki Cheikh Amadou Bamba ngir sëñ Touba moom ko mm-hmm. bi sëriñ bi jaaree ci yeneen béréb yi ba suñ boroom won ko bérébam bii di Touba fii jumaa ji nekk tey ak béréb yi mu jaar nga xam ne mag ñi daanan ko topp sax di ko sedd di ko wër di toll ci fukk ak juróom-benn wala fukk ak juróom-ñaar daanan yor ay gànnaay di jóg guddi di wër topp àll bi di xool sëñ bi ba xam fan la nekk ndax àll bi mu dugg waaye àll bi lëndëm na lëndëm goo xam ne. daana def fu ñu jaar damm ngeer wala ñu damm dara ngir bu mañ ñu ko mën a xam fi ñu jaaroon mu ne ci kër kër yi digganteem ak borom waxtu woowu muy nekk di réer sax ci biir Touba ñu di ko seet am na bis maam borom Sam maam jaara julli ci jàkka ji njeere mbakke ba julli gee ba noppi génn dajale fere yëpp ne damaa bëgg waxtaan ak yéen suñu waa ji hmm. naan damaa bëgg ngeen xam ne woowu leen ba ngeen ñëw mu door a jox mu door a wut lu mu leen jox daa am lu mu leen jox ba noppi door a woote woowu leen ba ngeen ñëw mu door a wuti daa am door a ngir delo ci nit ñi ak dalal leen ci seen xel ba mu ñëwee it fa mu jaar gis nga mbal nekkon na fa te buba jam moomee la yoni won daru salam don ko wolo ji Cheikh Massamba Diop Sam ngir yoon wo mu takkon ngir bëgg a ji rasulullah sallallahu alaihi wasallam, te wax na amna na ci ay galankor waye fi juma ji nek tay nga xamne mbarum ngeer la fi defoon def fi ab dor dor baba sikkar lañ daan def gis nga boo gisee sikkaros Baay Faal si Cheikh Ibra Fall waxtu wi muy ñëw booba sëñ Tuubaa mi ngi tërbiyaa mag ñi ci sikkar ndax tawaalifa gut booba taalifa gut xaside yi nga xam ne dafa jëm ci matxu yeeg salatu yi booba sikkar lañuy def bu jëmee ci jàkka ji dañuy ànd ak moom di sikkar ba mu agsi ñu toog mu def ay nawafilam bu ñuy julli ñu ànd bu jullee ba noppi dellu siwaat ñu ànd ak moom bu ñëwee benn mu ne leen jekki leen wala mu bàyyi leen nu wéyal di sikkar loola leen mayoon ñu dem ba mboolem kiiraay yi doxoon seen digganteeg sew-sew yëpp dañ ñu mën di jàkkaarloog mboolem secret yi di jàkkaarloog mboolem pays yi nga xam ne doomu aadama doxoon yegg fa sax jafe woon na ñu ngi ko doon amee ci sikkar bu dakar xayru taami di muridi saaliki dawaamu dikri dil jalaali maliki sëñ Tuubaa nee na murid bi na ma jëm ci yàlla ñam bi gën ci moom élément bi gën ci moom di ko dunde mooy saxoo tudd borom bi subhanahu wa taala loolu moo tax ñoom ñu wéyaloon ca saxoo sikar soseen di xiif di mar di xëy suba ba ngoon nga bu pepp wala kolkolub cere la ñuy am kibéerug satal ak ndox da leen di jox buñ ko naanee buñ ko amaatee waa dellu si wat te loolu yàqu seen pas-pas ya ak seen yitte juré ya ak doxinu mag woowee ñu doon ndox moom mi leen di tàggatit te di leen tàggat ci himma mu yitte ju kawe waxtu wu nekk mu di leen gën a juxañ ak jëme ci boromam ci njaxlaf ga ci yitte du kawe ja ci doxin wa te du may kenn benn occasion bu jàll nga xam ne lu ñëw rek mu laaj la ca noo ca doxe hmm. nga xam ne loolu moo indi woon léegi-léegi mu ne nit ñaati baat nga fi wax bi nga xëy ak léegi nga ne na ma de fay naa ko waaye ana waa kër ga mu ne bëriwut waaye bu léegi na gën a néew ngir won la yàkkamte gi mu yàkkamti ak xam gi mu xam fa mu jëm na mu koy doxe foofu mu nekk dafa tërbiya mag ñi di leen fi tàggat nga xam ne fii jumaa ji nekk tey dóor dóorum ngeer a fi nekkoon dañuy wax ne amoon na juróom-ñetti kees kees bu njëkk gi rek moo amutoon ab néeg waaye kees yëpp amoon na ab néeg fii tey Cheikh Mahamadou fii jumaa fii sëñ bi nekk tey Cheikh Mahamadou Lamine Baara moom Xaadimu Rasuul feeñe fi feeñe fi jamono muy nag diggante daarul xuduus diggante daarul rahman muy daaru naar kër sëñ Chouaïbou daarul di yendu fii léegi-léegi mu ñëw fanaan fii di baagante di ta def nag doggu tawaalifam yi nga xam ne mooy tàmbali xaside yi nga xam ne lu mel ni taiya رائية ميمية نونية من ما قلبي له في اعتاب الجسم تكرار أكمل سليمان بصرف عن المسيات القلب منية في اليوم قد سلم yooyu yëpp nga xam ne da koy da koy def ak xataaba xal bi yàlla man laahu sallama ni xasida yooyu mu tàmbali di ko di taalif yeneen yeneen am ndaax yi nga xam ne bi di gën di gaaw jëm ci jëm ci boroomam nit ñi di dégg waxtu wu di bàyyi fu nekk di ñëw waaye bu ñëwee lu ñuy wax la sëñ Mouhamadou Lamine Gueye jëm mooy waxoon rek haza ziyaratuna يا روضة الخطباء يا خطوة العلماء يا ملجأ البصر خرايا فوز وردوان وتكريمة وعافية الدارين يا وزير lii rek ma andi woon mooy ngërëmul yàlla lu sax dak ku ñëw rek andi loolu moom moo taxañ am fu mu jëm daarul xuduus daarul rahman muy kër sëriñ Chouaïbou daarul minan kër kër sëriñ Basiiru béréb yooyu nekk béréb yoo xam ne da ci da ci bàggante xam ne benn béréb bu ci nekk ñaata am daax ñaata taalif dafa talif ñu suul ko fa yo xamne lu ci nek kenn xamul dayoom ci digeentem ak tagg rasulullah sallallahu alayhi wasallam kenn xamul dayoom ci digeentem ak julli ci yonnati bi alayhi wasallam ndax nim rawe ñi tag ñi tag yonnati bi seigne touba nim leen rawe lolu du seigne bi mo wax ne ma leen raw wax na ko ci mbindam du ay talibé ma tok naan seigne be raw way seigne bi neena yonnati be ko wax ne ya ci raw ta lolu defena jang jàngkat yi dama wax ne lima jaxal fi ne tay ko ci tudun yusuf ibne ismaeil an-Nabahaani ñom xam nañ yusuf ibn ismail nabahani ndax mo talif jami karamatul awliya ñom d'accord nañ mbirum te jami karamatul awliya dañ koy jàng ci addu yëpp ñu dajale ci dajale ci mbolam karaamay awliya wi nabahani mo ma nga nekkon liban ku mënoon na tag yonent bi alayhi salatu salaam la dañ wax ne mom egg na ci sax bu suppé khalimam yonent bi jox ko loxo sallallahu alayhi wasallam te jamonoonte wut ak mom sëñ touba la bokkal jamono waaye gisante wuñ ci zahir waye neena amna bis da fay dafay dugg xalwa di laaj boromam nako ndax amna ku tag rasulullahi lu tolli limako tag nee na yonent bi ne moo ne ku ñu wax Ahmadou Bamba kenn jutul asakaam ci tàgg ba kenn jutul asakaam ci tàgg ba te Nabaxaani moom i wax na loo xam ne c'est pourquoi bu ñu waxee dara ci sëñ rek ñu ne ñii dañu nekk daanaka wala ñu nangam mais Nabaxaani moomu gisul sëñ Touba ci zahir te dem na ba wax ne ku rasulullahi raw Ahmadou Bamba raw la perte ga nga xam ne loolu wax ju wax ju wax ju من مولير لما تعمل ليش هون جاري معلوم لله فضلا لا يمنو فضل غير ممنون حول قديم الذي لو الله ما سجدت على الجباه ولم تقرا به النون من فاته محمد المختار من مدر فاته خالد المختار مغبون اسكي كون كون كون داني نونغو ني نيوني لولو ني واخ مل سيغ توباب سيغ مولاي بوسو واخني بو ني تاغ يونتيب گت اذا استرغ العباد كان امامهم وفي مت خيل الخلق قيد الاوابد laqad faaqa kullan fi salati ala nabi fiha bada taqdimuhu bil yi bu dee jiitu tagg rasulaay moo ci raw bu dee jaamu yàlla moo ci raw mu dafa am daax yu tol noonu bi ñu ba ci atum bayses di mille trois cent douze mu gañaay def engagement boo xam ne xam nga dangay ngay dégg léegi ñu ne diw gor nga mais sëñ Tuubaa mooy gor lu ko dal goree ku ko Desa ndeysaan jërëjëf wallaay ndeysaan jërëjëf sëñ Gana jërëjëf mom murid la andana mak mom dem Makka man manta wax ci serigne touba ñaari baat joyut waye loolu ko bi fay aduna bépp sop ndax serigne bi bor dafa am fay sa bu ko lebalee ker guddi la lay fay fo jot xalum kon sëñ Gana yaangi Touba Touba googi la serigne bi am solo lo xam goni gone yi tollu ci am jom dañ ko wara ndax seigne touba waxtane ko day may nit jom xam nga seigne touba dem na ci géej gi ba delu ci amul juróom fukki at al iradatu qawiyya dem na ci géej gi ba del ci amul juróom fukki at keroog bi muy gisanteeg yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci daru xuddoos ñeen fukki atam manke na ñetti weer mu ne ko bis niki tay man na naa la ko tëbal def la xutbu samaan mu ne ko sama beut jil na loolu kuy wut xaalis bañ na la milliard a nga ne man bëgguma milliard ñu ne la amee ah, seigne bi lo bëgg nak nga ne machine bii defar milliard tañ garanté ko ci adduna bépp xaalis bu ma defar mu walaa bal ci adduna bépp machine bi laa bëgg te machine bu paa paanit laa bëgg di man a defar xaalis fu mën a toll ba dootuma ñàkk xaalis yonent bi ne ko négal ma laaj ko sa borom daal ne ko sa borom nee na ñaar téeméeri nattu la ak juróom-ñetti fukki nattu ak juróom muy ay surtout bàqara mu ne ko man dey ruugi sàkkuma ko bay xam lu mu attan ak lu mu attanul waaye neel sama borom lu mu ma mën a teg bu ko ruugi attanee sama jom dékk na ko koo koy gor koo koy géer masta weddi masta miim ni ko sëriñ bi waxe nga xam ne tukki boobu nag lay bëgg dugg di ko waajal pour dem mbàkki baar yi te tukki bi sëriñ bi daf koo fonk ba tuddee na ko alqurba mooy tumranki fonk tukki bi ba tuddee ko li ñuy tuddee maanaam tuddee na ko it xayba mooy li ñuy tuddee fàllu wax na ko wa sababu xaybati albahina sëñ Basiru nag dafa wax ne euh, tukki bi dafa am ñaar yu ci nek zababu batin ak zababu zahir mune dafa melne babul batinuhu fihi rahma waye nak wa zahiruhu min qibalihi alhazab dafa melne bir bi dafa melne manam maanaam tukki bi lépp lépp yërmande la waye saayir si nga xamne dafay nuru ay nattu ak ay nangam lool lépp xéewal la ci ñun mouride yi taxul cheikh amadou Bamba di dem kon serigne bi jóge na Touba sanc ko woolu fi Massamba Diop Sam bubu jamoko ko ndax rëbb du tiit rëbbu gaskatub teen akub rëbb foo ko fekk day am xam-xam ne buubu ja bu doon tiit bi mu gisee sëñ Tuubaa ci àll boobu mu sol xaftaanam yu bëri yooyu takk ndiggam takk kaala gi ci ndiggam li maanaam te tene yi ak bukki yi ak maanaam rabi yi àll yépp ngi woon ci biir dëkk bi booba moom muy ab rëbb xam fi gaynde yi jaar xam fi bukki yi jaar ba mën a tegg te sëñ Tuubaa moom du leen daw foofu la njaay àll ji muy gaynde njaay àll gi mooy mooy mooy mbaam àll gaynde gi di ko dàq ba mu ñëw làqutu ci ginnaaw sañ tubaa moo tax fii dañ fi rawee kuy làq mbaam àll doo bàyyi nit sëñ tubaa ku ànd ak moom mucc nga àdduna ak àllaaxira sëñ bu sara sàmbu ñu ngi bëgg a dugg ci tukki bi yaa ngi doon toll jeewal jeewal googu nga xam ne fala waxee ne fala iblis njëkk a ñëwee songu ma ngir gàllankooral ma sama liggéey waaye yonent bi sallallahu alayhi wa ak ahlu badrin gi ma àndaloon dox sama digganteeg moom mu wax na nag bi may dem ci géej gi jaamu yàlla ñeewu ma ci kenn ñeewu ma ci malaykatul muxarab ñeewu ma ci nabiyul mursal ndax dafa wax dafa am lu ñu tuddee kamalul islaam ak kamalul iman ak kamalul ihsan nee na loolu rek mu yóbbu woon ci géej gi ñu ne ko kamalul islaam mooy lan mu ne al ñu ne ko kamalul iman mooy lan mu ne al ñu ne ko kamalul ihsan mooy lan mooy al wusul ila allah moo tax lillahi qad wasaltu inda galwaa ba mu demee galwaa la àgg ci yàlla rëkk ba sëñ tubaa ni mu doon jaamoo yàlla ba àgg ci yàlla rëkk ku ci doon dolli virgule doo dem sëñ busalaa yaa ngi jëmoon jeewal dañ lay topp ak yow nga dugg ak ñun ak jeewal dem ak ñun ak ndar tàbbi ak ñun ci géej gi jërëjëf euh, sëñ Ibrahim jërëjëf sëriñ Gànna jërëjëf sëriñ Abdoulahi Diop Bichri eh, dafa am ku mas a ñëw ci Seex Ibra nuyoo làmb ji ba mu génne la ci nekk jox ko ñu ko faal ba yàgg mu daldi ni ko fas wi ma indi woon day joxe naa ko fi dama la ko jox àddiya Seex Ibra ne ko waa ah, kay ah, def nga lu baax doom def nga lu baax mu jekk ba ci àgg mu ne ko doom jii ma àndal jébbal naa la ko àdduna ak àllaaxira su ma ne ah jébbale sa doom de mooy jébbale sa bopp rek mu daal di yeeyu jooy seex mu ne ko ah fenatoo nag <laughs> fenatoo nag fenatoo seex bu dafa daana wax ni àddoom ah, bayliku leen murit day bayliku bayliku di leen tax a daanu ku bayliku itam doo daanu mooy li nga dégg sëñ bi wax ni min sihaabin tabattalu li wakilin qad xadaahum bi nuuri xaqil yaqini sëriñ bi bi mu xëyee mbàkke baar yi tàggoog bokkam yooyu daldi war yendoo dox sëriñ bi nee na wasaadafa xuróojuhu xuróoja qaa'idi jeyshi min nahwi luga fa talaqiya inda jeewal xasiyata zalika al yowm waxtu yi nga xamne ci le seigne touba waré mbacké Bari jëm Ndar ci la commandant clerc bi and ak soldat yi ak espèces yi waree jëm ci mbacké Bari di japp ci borom Tuubaa dajé way jéwal taxul won seigne bee jóg touba bi yendo dox jëm ci mbacké Bari seigne bi yendo dox jëm Jolof muni fata làq ya indi jeewal dañoo daje jeewal hacheta zalikal yow ma ca ak bis bobé di gaaw fukki fana ak juróom ci yoru safar jeewal mooy maxalu liqaa yi sëriñ tubaa na bi ma taxawee ci tund jeewal taxaw ci tund wi tiim xur wi commandant bi ak espace yi taxaw ci wële tund tiim xur wi sunu ñaari maari jey jàkkaarloo kee yor ndigalal borom ndar ki yor ndigalal muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nee na sunu borom ne ma yaa ayyuha alladina amanu iza laqitumul ladina kafaru safan falaa tuwallu adbaara wax damaa wax ni damaa nangoo ci làmmiñu sëriñ Modou Kane Baye Mourtala mu ni keroog bi sëñ Tuubaa jóge Mbàkke Baari bi mag ñi ku ne wax ku ne wax Seex Ibra Faal la ngi mel ni koy matu mi ngi wanguraay di muug muugi rek ku ne sëñ bi laaj la pexeem ak loo xalaat nee na ba yàgg sëñ Tuubaa ni ko Ibra Faal ana yow loo xalaat nee na sëñ Seex Ibra Faal dafa yenu ay loxoom di teen ca kaw ba yàgg mun ko ah sëñ Bamba bett nga ma sëñ Bamba bett nga ma sëñ Bamba damaa defoo ni bi nga may woo ci liggéey bii bi ngay wootee di ma fal ci nguuru yàlla gi ba ma yëg ko sa bisub taw xew a tax xanaa moo sëriñ bi doo am sa bis bi yenn ko ci sa donkal dem moom bàyyi ma sëñ Bamba bàyyi ma ma naan géej gi gaal gii du am fu mu aw yóbbu la mun ko defal gaal gi bàyyi ko tubaab yi bàyyi leen yàlla bindee te bàyyi géej gi ni ko yàlla bindee te bàyyi maag tubaab yi sëñ bi dox na wutin jeewal ak yi ca xew yépp ba yegg jeewal jàkkaarlook ñoom xam nga sëriñ tubaa nag stratège la nun ñii suñ bàyyi demoon 14 18 noo xam li sëñ tubaa def barke borom tubaa bi sëñ bi taxawee ci wéetund tiim xur wi lëkkale rek taxaw ci wéetund tiim xur wi sëñ ñaar maay jëy jàkkaarloo tubaab yi dañoo wax ni la force peut vaincre la vérité la vérité peut vaincre la force

wala day bañ tubaab yi itam daal di jëf lu nuru ak ñeewant ak néggandiku daal di koy gaw gaw moo ñu encercler ko waaye sëñ tubaa ngi ci der bi rek di julli waxtu la woo xam ne bii achiyata la maanaam ngoor la julli rek dinaa fi dinaa fi le ba tàkkusaan jot mu julli toog fa di tudd yàlla turu yàlla ñu wax yaawali la sëñ tubaa wax ni moom la yor dégg nga mu ni ay yasa min ni laahu inde jeewali iblisa isnaadaytuhu bi yaa wali mu yor turu yàlla woowu di ko sikar ba yàgg tubaab bi di ko rek takkal nu dem mi ngi guddi takkal nu dem mi ngi guddi mu ne ko nag duma dem fii laay fanaan ñu ne ko fanaan yow dañ la doon jàppi far dajeeg yow sëñ bi ni leen damay fanaan te sëñ bi du wax di ca dellu léegi bi ñu xamee ni sëñ bi léegi dogu na ci mel na ni ku ñëg ci day day fanaan ñu soññ ko soññ mu të ci lañu ñu décider nag exécuter ko foofu ci jeewal pour liquider ko fu fetal ko mm. bi dara desul lu ñu ñu war a soqi ci moom sawar sawara ce la ñu daanoo ñoom ñoom tubaab yëpp dañoo daal di daanu luur di say di wéqu di sanguwaay seen yére ba ni nemm sëñ tubaa ànd ak guddi gi réerul tëddul dara tii mu ko du jaww kii rek la belle étoile loolu mu wax ne eh, loolu mu wax ca xuqa ni eh, yan suuna na daaw a soxdaa fi mu mustahsine bi askaarin wa ayaati hmm. gongi ko buróoj yi rek ak biddiw yi di wétli boroomam fanaanee xool fanaanee jaamu yàlla tubaab bi di luur ak a say ba ni nemm ba fajar ca fajar ba mu jullee fajar ba fa la sax ba jullee fa fay nange ca dimanche ca ñeenti rakk yor yor fa la ko jullee ba takk ba jëkk door a wax ni ndax ñii noonu duma fanaan dañuy dem am duñu dem dongo yaa leen yee di leen wéq ñu war nga war gu bon ci la commandant bi defee rapport wax ni c'est au moment où nous sommes opposés à son désir que nous sommes frappés par une sorte d'éclair et nous sommes restés évanouis jusqu'au matin jamono yéen dogoo ci soq ci moom sawara woowee waxtu nag ci lañu melni mel ak dënnoo dal ci sunu kaw ñu daanu andu sunu sago di xëm ba ca fajar sëñ tuba war ba mu waré loy ñu traîner dans la boue sëñ tuba def na ko tuba bi kéro sëñ bi dafa rek dal di jaar ñokk siyaare maam Maxtaar Nubbe jóge fa yendu ji kokki fa lay yendu keroog bisub dimanche ba fa lay yendu ba timis si bëgg a jot mu xiin penku ba sow tàmbali la ndox xam nga seeti souvent de wax set la xiin taw xiinul taw ci bi ba timis mu xiin penku ba tàmbali la ndox ci la sëñ Tuubaa génn ànd ak ñoom ñuy tawte mu fanaani Lugo ba mu dikkee Lugo bokki njàmbur yëpp ak see xam yu baax yooyu yëpp ak mu saa di xam yëpp ak jullit yépp topp ko ca suba ak altine ga la taxaw ca gaaru Louga ba gaar boobu nga xam ni mu ngi damu ci kaar gi gaar yi ndax fa la sëñ Tuubaa wàcce fasam wa nag ñu duggal ko saxaar saxaar goo xam ne gii locomotive la muy saxaaru vapeur saxaar gu ñuy xam ak mat mur yi bari nañ lool seexi njaabur yi bari nañ lool sëñ ma duggay jëmmooy sëñ Baara Faati Mbóoj sëñ Mat Lamin Gay ñoom sëñ ma Amar sàmm ñoom bokki njaambur yooyu yëpp dagg fas yéene fu sëñ Tuubaa teg tànkam ñu teg fa tànkam waaye tubaab bi pour bañ désordre dañu ni leen beru leen ci saxaar gi dugg leen ci yeneen locomotive yeneen wago yi waaye sëñ bi képp ñu ber ci yenn wago bi dara desul lu mu déparé saxaar gi jëm Ndar dañoo décroché wago yi xam nga saxaar bopp bi rek ay daw wago yi ci des yëpp dañuy oto bu ñuy poussé yam oto bu ñuy remorqué yam ñu décroché wago yi ci saxaar ga daal di déqi <coughs> locomotive ba daal di déqi bopp saxaar gi déqi ca la tubaa nekk di liit saxaar saa ngay jolli waaye bi saxaar si saxaar gi saxaar demee ba ñee gisatuñ ko ñee ngay yuuxu daw ñee ngay topp saxaar ga ñee fas seen mbubb ñee lonkale seen i baaraab daw wuti ndar ci biir saxaar googu ci la sëñ tubaa daal di yëkkati loxoom تلوي خسلك ألا إنني أثني على خير منعمي إنني عصت بالإله المعيني من جميع الأزاء وكل لهيني صارفا همتي لرب تعالى راجيا سحيه بما معيني ماسكا بالكتاب مسك درير بيد القائد البصير المعيني دنجا كبير خسلك وقمنا منان ووحسي ورفعتي وكنوزي وبه أتجن قياد المحرم حروني سن بي كبير خسر تلا برسوني في الاسلام بودي جمنان ربي وفكك اسري ورهني fa inni bi zunubi mukabbalun fi sujuuni waxul jëmmi boppam ja rabbi wafuk raxnal islaam yi booba lislaam la ñu jàpp booba sëñ Tuubaa moo tax daana wax ni tubaab yi jotewu maa ñoom dara seen kilifa gii di iblis moom laa jam xëejub dëgg cib xol mu yuuxu ay bokkam wallu ma nga naan rabbi wafuk asri yi yàlla jotal sama njafeel war rax nii te jot sama tayle l'islam la ñu tayle booba fa inni bi sunoo bi mu kabbalun fi sujuni rabbi inni abdun kasirul maasi fal maasi haa i wa baayi wa siini rabbi nii rabbi raqi nii rumashaani zakki lii nuna qabla faayin wa siini waaye déglu listajib daawati bi maa faaqa zanni wa bi maa faaqa rabbi kula sununi moo tax histoire yoonu géej gi léeg-léeg nga dégg ku naan weesu nañu sëñ Tuubaa demoon ci géej gi bu nu ko weesoo fu nu jëm lii rek la def lu kenn deful dajeeg tubaab yi rek semmal leen dem dellu si di kenn ndamal sëñ Touba lii mu am ci tubaab yi bu doon football dama naan trois 0 la score bi 3-0 la day ndamal ku ñuul ci ku weex ci moom la jëkkee ci la mujjee ñuul kukk walay sa yooju yujubu sawaadel jismi safahatal fataawa su al mi nekk ki nga xam ni il a la civilisation de l'homme noir borom dër bu ñuul te sëñ Touba waxoon na leen ko ca Masaalik ca bañ boo doon yóg doon borom dër bu ñuul ay nit ñu weex jàpp ko mu doon kenn ci mbooloo bi muy dem di kenn képp ñoom ñu di aw mbooloo di jéeyoo seeri pexe di nas ay pexe am ci moom sañ-sañ suñ borom jox leen ci moom sulta lu leen neex jëfandikoo ko ci moom te du daw du raf du miim du weddi waaye muy ndamal jullit bi ci yéefar bi ñoom ñëpp ñu di musrikoona muy wax ak ñoom te ànd ak li muy doon doon seenum noon ñom ñoko bañ way mom leen rek leen bañé muy weddi gi ñu wad yalla weddi rasulullahi te seigne touba sax ngi leen di la biré ya jumlatan qad sallasu bi dalalihim man lam yakun waladun lahu aw waalidu di leen di leen war di leen wan l'islam ci na l'islam mel and na ñom jurum ñet at yu manqueeti weer musta jullee menn mbubb menn mbubb musu koo jullee ñaari farata musu julé men pot li yalla digle lepp mo ci man mom dong ko man sax xuzu sinatakum inda kulli masjidin mos a jullee mel ni mbubb ñaari farata mos a jullee mel ni njàpp ñaari farata mos a julli mukk te naafilawul mos a julli mukk te noddul julli mi nga xam ne mooy synthèse u islam dans sa globalité mooy lépp l'islam julli moomu la defoon nga naa naayam di leen ko timbax fu ñu toll muy julli ci seen bureau yi di julli ci seen kanisa yi di julli ci seen caserne yi di julli ci seen camp yi di julli ci seen cellules yi di tudd yàlla ca kaw ñi di ko dégg sëñ Tuubaa gaynde la wéet musuko nak nag musu koo tere xeex mus sa soppi ko barab musuko koo soppi wéet musu soppi situation musuko koo soppi il a toujours été égal à lui-même foko ba sa fek rek Ahmadou Bamba nga fek motax daara wax ni bi mu ñibbisee dafa wax ni cheikh seigne gaa ne ko mbacke mu ne ko ah yàgg naa ci all bi waaye bañuma kenn ko top sama tank musuma salif fenn seigne Tuubaa ko wax seex mu ne ko mbacke mu ne ko yàgg naa ci all bi waye bañuma kenn ko top sama tànk musuma salif fenn ban saxaar gi yegee ndar mu sax fa baqiitu saxru safar wa saxru rabiul awal ilaa yow may nii sax na fa la des ca weeru safar wa ak weeru gàmma wa ba mu des ba mu toll ci xëy loolu la am ndar ci diir boobu ca lañ taxawal conseil privé sëñ tubaa nee na moo tax màggalu ren gii dafa nuur lool yoonu géej ga barki sëñ tubaa màggalu ren gii dafa nuur lool yoonu géej ga ren màggalu bu taarix yi la ren màggalu sëñ tubaa la ceet yépp la ñu màgg la ñu annulé màggal yëpp la ñu annulé bis yëpp lañu ñu annulé màggal gi rek la ñu màggal ren aj màkk sax dañ ko annulé ndax ren mooy màggalu sëñ Touba ren at mu metti la mu tiis la waaye atum gor ñi la moo tax la sëñ Touba defoon rek la murid saadix yi defaat ren ñëpp bañ dawee wuti dee ba dee dogale leen kenn ku ne dañ bu ma ci neree dee dëpp sëñ Touba ni bu ma ko dee dee xañ doo ko nekk waaye noonu lu nu bu dee dee dox su diggante sañ sëñ Touba du nu taxawañu ko noonu corona sunu feebar bii sunu mbokka sunu mbokkum taalibee danoo bëgg nu bëgg ko du fi rey dara du fi def dara du fi def jenn lor dañuy màggal rek ànd ak moom muy dogal bu yàlla dogal nu fas yéree màggal te bàyyi suñu bopp ak yàlla ndax yàlla du lii rek la am du épidémie bii rek la am yàllaa ngeeg yeneen yoo xam ne yii bu ñu bàyyi woon ak yooya kon kon deegu mitt la wala deegu li yàlla yor te xamuñu ko te mu nëbbuñu ko corona ci gëna tuuti waye le seigne touba defoon rek la mouride def ren moy buma ma buma ci naré dee depp la ñëpp wax seigne touba bi buma ko xañ ko waye corona dox ci jërëjëf jërëjëf alhaji Busra sambu tegal fofu so loxo yeen bañu ñu khutba yi ya ak ya, té att nuñ ko moko fab raw gaña da ngeñ di way ta balaa ya surtout lahwani la am ci laaya serigne touba lu mbir la koy faf dolli ak gëm du yoqi du daw di mbër mu far ak boroomam yaa ngi jëm daar nag foofee lañ ko boolee gaynde sunu maam sëñ Modou Khari suñ maam sëñ Modou Khari faa ñan dafa nettali ne Serigne tubaab moo ko wax ne ko biñ may boole ak gaynde gi dañoo ubbi fi ñuy dugal gaynde gi wax ma ne ma demal boole maag ki may yóbbu waaye ki nga xam ne mu ngi ci kaw étage bi yor fetal dafa wax sëriñ bi ne ko maa ngi lay souhaité deegu neex ndax yow gayndee la nar a lekk maa ngi lay souhaité nga am deegu kii daal deegoo xam ne deew gaynde moo lay lekk sëriñ bi nee na ma waax wuti fi gaynde gi nekk bi ma waaxoo ak doole wuti fi gaynde gi nekk ne yonent bi ne cëpp ci sama kanam ne ma bàyyi ma ma njëkk laa dugg bi ko yonent bi ne bàyyil ma njëkk laa dugg sëñ Modou xaree nettali ne sëñ tubaako ko ko nettali biko ko bi ne bayil ma jekk la dugg seigne touba ne jësub taxaw ñu ne ko ah yow da nga doon jaay fit rek di waxu demal ndekete bobo xorma jox yonent bi ngir wacc gum wacc ne ko bayil ma jekk la dugg ci taax mi moo jeex na wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan kon nag jërëjëf euh, sëriñ Bousra sambu di sunu doyen di sunu di sunu mag ci li nuy def ba pidi di kuko man di ko xamne ñun ñi di waxtaan ñep ñun suñu idole nga suñu référence nga dañuy xol ci yow dañuy roy ci yow ci sa labir sa bax ak sa mala wacc sa bop wax deug yalla ñu ngi lay jéggulu sax bu yagg bi kon Cheikh abdullah Diop bisri lu ngi duggu gànnaar waaw gànnaar nga nga xamne ko fa massa dem bo dee gor def nañ la jam ngay rotel jigen ñeek sar xolle ga nga xamne ku fa massa dem doon nga seen taalibe gànnaar ga nga xam ne foofee la Abdullah ibn Alawi ne gànnaar ga nga xam ne Abdullah ibn assan ma nga fa gànnaar ga nga xam ne Cheikh Sidi yaa nga fa gànnaar ga nga xam ne maanaam Cheikh Saadu Abe nga fa gànnaar ga nga xam ne mbooleem surafaw yépp nga fa te it wa badrun muniirun xaaba fil xarbi zumala amil xarbi zamsan rifhatan wantisaara Cheikh Saadu Abi nee na kii jàpp ci saw bi muy dem ci géej gi ci penk muy dem ci géej gi bi muy dem wéru fukki guddi ak juroom la waye bu dellu suwee jant bu wessa roy don Cheikh Abdoulaye Diop Bichri seigne Touba ak gannar jerejeuf mam Cheikh Ibrahima Fall ñu ko tuddu ñep na la wax li ñu wax seigne Touba jerejeuf ci cadeau yu rafet gannar bi dafa wax ni ñetti geejje ngi kudul man Ahmadou dang nga lab man rek ma ci labul ñu ne ko geej bu ñëkk bi ban la mbacké mu ni geej bu ñëkk gi moy pexem nasaran bi bi tubab kenn musta genn ci say mbokk am ak ñom 24 heures waxuma wër bis ta te ñu la musta am ci histoire tubab ku musta taggok say mbokk and ak ñom nu jëmele ci seeni pexé fa nga mujjé moy fi moy tombom kay leen ngeen ziaré ko seen sëriñ bi ngeen yaakaaroon sëñ Tuubaa wax ni man rek ma labul ci geej gog ta sank nañ ñu bari ñoo xamni histoire relaté nako ñu bari faatu nañu ñak seen bakkan ci sax jamono bu yagul lo xamni ginnaw serigne touba la ñi fi massa bañ ci ku ñuul sax dañ leena boom Patrice Lumumba njit lu mag la won dañ ko boom ñom bi Sylvanus Olympio ci Togo dañ ko boom ñom tubaab bi Barthélemy Boganda ci afrique dañ ko boom ñom tubaab bi Ahmadou Ahidjo ci Niger dañ ko boom Jori Amani ci Niger Ahmadou Ahidjo ci Cameroun dañ ko boom dañu boom Malcolm X tey tuddee nañ ko yoon wu rëy ci biir Amérique Martin Luther King dañ ko rey ci Memphis te nit ku ñuul la doon xeexal moo ne woon gént naa jamono ngi ñëw dinañu àtte nit ku ñuul ci comportement ak jikkoom bañ koo àtte ci ñuulaayu deram I have a dream that one day my four little children will live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character bañ nanu ba tàyyi ñu rey leen Léopold Sédar jiite na réew mi dafa àndoon nag ku ñuy wax Aimé Césaire ak Léon Gontran Damas ñu taxawal la négritude ngir xeexal nit ko ñuul taxul ñu am réussite wala Soyinka bu Nigéria waxoon na ko kenn mësta jug xeex am victoire ci nit ñu ñuul yi kenn ni ko Cheikh Ahmadou ba amee xaadimu rasul moo tax sëtam bi sëñ Abdourahman Mbakke mu sëñ Abdul Quddus ma borom daarul Muxti boo delloo ca marsiyaam ba ba mu koy woy dafa wax ni بداية الخير منه قل نهايته إليه من ربه وللمنيبين بداية الفضل منه قل نهايته إليه من فضله حب المتيعين حب الخديم على السودان مفترض إذ حرر السود من رق المديلين قد حرر السود من رق فقادهم لله بالله بالمخدوم هدينا قد انقذ السود من جهل ومن كسل بالعلم والكتح فانقذوا له حينا كي واي كومو دون من لله من قادم قد اما قدمته كل البلاد وكل الخلق والدين سي عبد الرحمن نينا شيخ احمد بامبا خادم رسول فيغا خامني ييو فلا يم فلا سيغ توبا تامبالي خامول ديبي ييو اك فين ييو دا فا نييو ليبام ييو نغنيل فامو تامبالي فامو يم ньо يم سي سيرن توبا ديغ ماك بروما nin koo gisee ba noppi koo gis léppam la jox yàlla ci ngëneelam yàlla jox ko ngëneelam yépp sëñ Abdourahman nee na cheikhul xadim nu ni ko waaw mu ni jëmm la joo xam ni kon sopp ko dafa war ci ñépp waaye rawatina ci deru nit ku ñuul ndax ñun dañoo gëmoon ni nit ku ñuul daa war a toppaate rek warta togg dara warta taxawal dara warta siggi am na sax philosophe bu ñuy wax euh, Hegel doomu Allemagne la moo njëkk a wax ni philosophie di xalaat bu kawe boobu ñuy wax falsafa mënuma ko nangul deru nit ku ñuul ndax seen xel daa bokku ñu ci langue gi duñu xalaat teguma len fenn la philosophie c'est la haute expression de la pensée alors que les africains ne pensent pas je ne pourrai jamais admettre une philosophie africaine gis nga ni def ak bilal mo daan noddal yanant bi ali salaatu wasalaam waye dañ doon saboter sinu mojama munu ko wax bu baax ba yanant bi ni sinam ak seen sina yam ci yalla ñaata lañu lor ci nit ñuul ñi japp dañu wara topé toppe warta taxawal dara serigne touba fekk bax fi togge fi añam jangi fi yaru fi gennul ci digeunte nijaayam serigne busoo bi fii fekk bax fi ci bawol liggey lo xamni bimu bi gannaar nga jàngoon lakku arab ñoo wëlbati ko noonu yaa raw ci arab serigne touba ñoo xalaat sax bakkar bi gëna reey moy xalaat ni mi woye wala xalaat ni mi tagge wala xalaat feelam ci yenantu bi diko tekkelik tëkkaleeg benn mindeef bakkar la ñi moom làmmeñu arab ca gànnaar ñoo wëlbatiku tagg sëñ Tuubaa ne ko yaanu raw ci làmmeñu arab dégg nga wax bi ku ñuy wax Muhammadul Fadil ibnu Ahmadu Dalili al Yanqubi doomu gànnaar la bi muy wax ci sëriñ Tuubaa dafa wax ni yow Cheikh Ahmadou Bamba mu ni ko waaw mu ni ko annahwu wal lugatu ilmul arabi wal juudu سيمتهم فجاههم ذو رتب أحمد بامبا من على بي رتب ابن حبيب الله ذو تأدب فصلب الجميع أي صلب منهم فصاروا معه كالقصب إلى عسيرة النبي الأنجمي نيكو أحمد بامبا يا أقا تقربي أفا يهل لك أفا يحل لك ظلم العربي بأخذ النحو وأخذ الأدب wa axzi joodihim bi xayri wadabi déggal kii li mu wax Sëriñ Tuubaa ci làmmeñu arab daf ko joxoñ ni an naxwu grammaire arab wal jóodu ak tabe wa naxwu ak grammaire wal luxa ak langue arab bu ñu waxee luxatu mooy vocabulaire ci arab tubaabay wax vocabulaire wala lexique arab luxa lay wax dangay ngay jàngi waat yépp xam ba ne lu muy firi ñu jaar ci programme u arab faaw ñu jaaraleen ci muxtaarul adab jaaral leen ci ibnu doydi jaaral leen ci daaliya ba keroog ñuy plafonné ci maqamatul xariiri door a xam làmmeñu arab xam-xam boobu di luxa naar bi nee na ñun arab yi kenn mu suñu see yëpp ndax ñoo ko di ci def lu nu neex di ci woy lu neex xam-xam bi ñuy wax naxwu muy atte yi tax nga xam xawaa'idu naxwiya lu ne lu tax ñu def ko fii lii daa jasam wala buñ koy lexraabal lii dafa binaa wala maf'ulun bihi la wala ismul faa'il la wala maf'ul atte ya aju tubaab bi nee kii naar bi nee na ñun ñoo ko moomoon ñun ñoo moomoon grammaire arabe moomoon langue arabe waaye tabe dafa fekkoon baax ci arabe yi dañoo mënoon a tabe am na lu ñuy wax naarul xiraa jàngkat yi xam nañu léeg-léeg arabe su amee ay milliards buntu këram da def benn lumière bu ñuy wax naarul xiraa mooy sawaras bernde lañ ko tudde luñ ci jublu africain kay ñun ñii ñoo baaxoo ñun sénégalais surtout ku am milliard di nëbbatu waaye arab dëgg dañoo roy ci yenant bi ku mas am milliard da ngay defar làmp sa buntu kër ngir wan gan yi dox bu ngeen agsee sama kër agsi leen wàcc am naa milliard ma dimbali leen ñoom kenn daawul tëju moo tax ñuy defar naarul xiraa kon moo tax ñu leen di tagge tabe am na ku bokk ci ñoom ku ñuy wax xaatimu taahi moo gënoon a tabi ci kaw suuf donte nekkul woon jullit terewul bu ñuy woy ko tabe faaw nu woy ko ci moom deng seigne Cheikh Gaynde Fatma bamuy way mamam khadim xaadima rasul dane fil jodi hatimuna fil fiqi malikuna wa fi fasaatihi yazri bi sahbana serigne touba gatchal na ñoy ci tabe motax nar bi niko tabe générosité ak mbax dafa nekkon sunu momel simatuhum waye lu xew bi lolu amé bi nu la meñu arab mom xam-xamu arab mom tabe dafa am lu xew ci ñun ñu niko lu xew mu ni fa jaahahum dañoo am ku ñëw ci seen biir ëpp leen fuuf daraja di Serigne Touba. kuy kooku mu ni Ahmadou Bamba zo ruta bi ah la ruta bi sax la wax Ahmadou Bamba mi gën a kawe ñëpp daraja moo ñëw ci sunu biir bi mu ñëwee lu mu def kuy kooku mu ni najlu habibillahi zo taaddu bi mooy ka nga xam ni ka ko jur ka ko jur habibullah lañ koy woowee borom teggin lañu askanoo ci mbàkkeeg be ñu ni kuy kooku mu ni bi mu ñëwee ci ñun fa salabal jamia ay yasala bi

mu ne ilaa asiratu nabil anjabi ba mu des waa kër yarant bi ñoom rek la war mal bàyyi leen fi waaye ku dul moom jiitu na leen daal di wax nii nag yow sëriñ Tuubaa kon ahmada bamba maa ngi wax ak yow yaa aqaa taqarubi yow mi gën a jege ñépp yàlla afa yaxilu laka zulmul arabi ndax dafa yell ci yow tooñ arab yi sëñ Tuubaa laaj ko nu ma leen tooñee mu ni ko bi axzi nahwihim <laughs> ci nangu gi nga nangu sunu làmmeñu arab grammaire bi yaa ko moom bi axzi nahwihim wa axzi joodihim nangu gi nga nangu tam sunu tabe tabe bi ghairi wadabi ta yaqo dara ñaawaloo dara ta nangu lepp ñepp xamni ya xam koku kenn la ci ñom am keneen ku ñuy wax muhammadu hasan al alawi dañ ko laaj kuy cheikh ahmadou bamba gannar la ko ak serigne bi bok na ci njëg serigne touba njëkk jox wirdu wi nga xamni sar sara la ko jotté fi mu njëkk a bi mi woy serigne touba dafa laaj jam ñëpp la laaj dañi man doomu gannar la sët la ci yenant bi ci hasan yoon la bok ñu ñu naw lañu hasan yoon yi leen respecté dañu sëtu ci yenant bi mune waye waaye yek ci serigne Touba damay laaj nak dafa am lu ñi wax ah, listifhamul tankiri dafa am xam nga yeen say nga laaj pour wéddi dara taw am yeen say nga laaj pour saxal dara légui lu tubab di wax interrogation oratoire jankati xam nañ ko suma Euh, monsieur Bouchra Samb, ne portez-vous pas un boubou blanc Pourtant, je lui ai posé cette question en sachant qu'il porte un boubou blanc. Le tax nga téye mbub mu weex mi sol ko xanaa soloo mbub mu weex pourtant xam ni lu weex la sol Wa elajin bo bëgg waxtaan la boobu lajin ci arab la laje li xam dañuy yéen jaam ñëpp laay laaj am tontu tontu ala ya ibadallahi qumu litashhadu wala taktumu ma taxlamuuna fa saaltukumu billahi man za raaytumu ala al ardi misla cheikhi yarka wa yasjudu fa in qultumu ma naarifu dëhra mislahu fa xawlukumu xaqun wa illa tafannadu shahidtu bi anna cheikh ahmadu lam yakun siwaahu karimun fawqatil ardi yoojadu déggal kii li mu wax moom lii ñuy wax ci Sénégal di werante jaru ko ña gën a jege yàlla gën koo màndi xam ko ñoo ni Sëriñ Tuubaa yow amoo morom dani الا يا عباد الله يين جامو يالله ييب لاي وخال واخول مريد واخول خادر واخول كنيول واخول كو خيس كوي جامو يالله يالله ساك لا سي لاج بيغا بوك الا يا عباد الله ني ني تك مو ني قومو جوغلين لي تشهدو نين سيرال ليما خام سي سن توبا نين سيرال دا خام نين كو ديما كو خام قومو لي تشهدو ولا تكتمو ولا تكتمو ما تعلمون تبولين نبو لي نين خام سي جيم جي بايكو سنغال نبي لي سي موم fa tente bu boobaa da ngeen di tooñ dangeen di jeng mu ni sa altu kuboo maa leen di laaj billaay te jëmmi yàlla rekk tax man zaara aytum kan ngeen gis kan ci mbindeef yi alal ardi ci kaw suuf mis la cheikh yi mu mel ni Serigne Touba moo xam koo xam ne yarka wa yasjudu kuy rukkoo la wala kuy sujjóot ko mel ni kii ndax teg ngeen ci bët mu ne ñaari réponse a mën benn tontu bi mooy waaw gis nañu ko benn waay la bu dëkk Liban waaw gis nañu ko ci Arabie Saoudite waaw gis nañ ko ca Maroc waaw gis nañ ko fi ci Mauritanie ben tontu la su boba ngeen ni ma waaw gis nañ ko melni mom su ngeen mako waxe man leen da ngeen di katch la wax ta fan na do da ngeen di katch su ngeen nee ma déedéet giiru ma suno gis ko melni Cheikh Ahmadou Bamba su boba fa hawlukum haqqun moo seen wax ji deug la. wa ila tu ah koku lol la wax. jërëjëf Serigne Touba def ki man gurey ganna mm-hmm. xam nga lan la. alquranul karim la sol nit. Mm-hmm. ci ñetti fan. musu mm-hmm. tam gaa yi jàng histoire rek may dégg ci gànnaar la sole nit ku ñuy wax Mouhamadou Fall ak Daymaan yi ñetti fan la ko Cheikhul Khadim jox alquran. est-ce que bi muy ñëw ñaari mbokkam la ànd bi nu ñëwee ñu seet si sëriñ bi ni su neexee gis ñu xam ne sunu xaajo dina faj su naqaree gis ñu xam ne du faj far nu ñëw fekk sëñ Touba ji xayma gi mu génn ñoom ñett ñu ñëw seet si sëriñ Touba ñaar ñi wax seen aajo ay bor lañu amoon soxla ndimbal sëriñ bi jox leen xéewal gu doy. moom serigne bi lak luy sa muné ko dama bok ci giir go xamné képp ku ci manul alquran do fa tekki dara duñ la may soxna duñ la tuddé dom da ngay melni ni ci seen biir ngir ñaka jang alquran té sama baye ma tooñ jëw ma woon daara lii moo metti mbacké nek sama nakaru xol té mu wóor ma ne yaa doon na bi yow la jox alquran ku la neex nga may ko alquran may ma alquran serigne bi ne ko dina la ko may waaye wéru koor dafa nuyo demal tok ba kori nga ñew jërëjëf mu dem ci daara ji ko rek. Mhm. mu dem ci daara ji toog ba kori jàll sëriñ bi génn rek ni ana ki doon ñaan alquran mu ne ko maa ngi sëriñ bi ni ko kaay nu may la alquran mu waaxu fekk sëriñ tuubaa fi mu taxaw mu jox ko boppam sëriñ bi jël loxoom ba. Mhm. teg ko ci ndaalu bopp sëriñ Mouhamadou Fall. Mouhamadou Fall waaw. Mhm. loxoom ba nga xam ni sëriñ Mbay Jaxate nee na. alhamdulilahi ndegam. man mu bon mii njaxam. loxo ba kenn amul njëgam tegoon ak sa loxo bi loxo booba la ni tegg ci loxol seigne mohammed Fall ni ko yaa Mouhamad Fall iqra'il qur'ana jàngal al qur'an ci ku demul won daara ma commencé alif lam mim zalikal kitaabu ca baqar bi tari ala yajidu ma yunfiquun ñaar fukki isib seigne Touba ni ko xif ca tawba seigne bi ni ko taxawal mu taxaw mu ne ko ñaar fukki isib a ngoog bu ëllëgee nga dellu si mu dem deuxième jour mu delsi serigne bi dóor ci bop bi ni ko jàngal qur'an yow mohammed Fall mu commencé ma sabilu di ko tari ba wallaahu yàlla mu maa tas na oon ca an ka bóot sëñ bi ni ko xiif taxawal mu taxaw boo lëggee nga dellu si mu dem troisième jour mu dellu si sëriñ bi dóor bopp bi ni ko Mouhamad Fall jàngal alquran mu commencé wala tujaadiloo ahlal kitab ba minal jinnati wan naasi sëriñ Tuubaa di muñ di ko xool naan ko yaa Mouhamad Fall aataytuka alqurana taaliman wa tahfisan wa tilawatan may naa la alquran ci mokkal ci tari ak ci di ko neexal bu ñetti fan yu jot deel wàcc ci alxuraanu karim gànnaar la defe lool sarsaara la jotee wirdu yoon wirdu yoonu murit mu ngi ko amee sarsaara sarsaara lañ ko njëkk a yóbbu wax naa la bi mu ñëwee ba jaar ci dex gi la jaare seex siidee baaba yebal ñaar ñu ko jël si mu ànd ak ñoom ñu indi indil koy gëléem kenn ki da koo togg kenn ki yor gëléem jiitu ñu jaar ci yoonu saara bi yoonu désert bi waaye bi ñuy dem ci désert bi fu ñu taxaw sëñ Mouhamad Lamine Diop Dagana nee na Serigne Touba day wax fii de neex naa sujjootale yàlla. jërëjëf sëñ Abdoulaye may ma wàcc waaw. loolu rek euh, moo ñuy tegtal ci wayi Mouhamad Ibnu Hasan. waaw yi nga doon wax. waaw ala ya ibadallahi. waaw quumu li tashadu. waaw wala taktumu ma taxlamuuna fa taxtadu. sahaltukumu billahi man sara aytumu alal ardi misla sayq yarkahu yasjudu ndax mas ngeen a gis ci kaw suuf ku mel ni sëñ Touba ci rukkoo ak sujjoot sëñ Touba lu mas a def rek. maanaam fu mu masal jaar rek julli na fa du wopp ba tax mu wàññi jaamu yàlla am du tiis ba tax mu war a fara tey boromam du déggug noddu mbaab kàbbar te téewul lu taw taw ak lu liw liw ngir boromam du tab ji ba tiim musul di maamoom du gàppuru bis du wéerul jullil boromam du yeexal wenn waxtu te masta fay faat la koy wax raw na montar mooy boromam moo tax Cheikh Sidiye di ko xool ba yàgg mu ne asayixu ahmadu nihmatun awlaaha haasihi alqalaahi kullaha mawlaaha ibnu mohalla dama laa waxul woon ci li nga laaj léegi seex euh, siidiya moom nga tudd mhm. moom it wax na sëñ Tuuba seex siidiya dani wa maa aybuhu illa ibadatu rabbihi wa naful wara fi subihi wa masaihi seex siidiya baaba mi ñu ko dénkoon moo wax ni sëriñ Tuuba ñaari défaut laa xam ci moom ñaari ñaari erreur laa xam sëñ Tuuba mu koy def li nu cëraloon ci waxtu rek moo jeex waaw kon baax na nu ngi jéggulu téléspectateur yépp euh, gànnaar moom sëñ bi toj na ko gis nga ibnu maalla ne na xaasal qadimu min al kamali ajaiba wa maqamuhu fihi l huyoonu tahaaru nee na sëñ tubaa moom maanaam kenn koo xam ne bët masta tegi ku mel na ci Cheikh ma Bamba masta mastaam kon mbokk yi euh, lii moo doon jataay bi damay jox sëñ Busara Sàmb mu wax ay kàdduum yu mujj ñu ñëw ci sëñ Gànn mu wax ay kàdduum yu mujj ñu ñëw ci sarab lay si Bisiri mu wax ay kàdduum yu mujj lu yëkkate jataay bi ba beneen yoon incha allah sëñ Busara looy tàggoo micro micro eh, sant yalla bu baax sant seigne Touba bu baax di serel sama mbégte ak sama tiant di ko serel yalla sama borom ak seigne Touba khadim rasoul amunu jenn tawat amunu benn njambat sant yalla rek lañ def ak xol bu sedd guy ndax Euh, man lii may def nii rek laa ci am ñeent fukki at ñeent di ko def booba yaakaar naa ni ñii ma toogal nii ay xale lañu. Mhm. bu doon ndàmb tey kon tey jii ca làng ga lay toog waaye liggéeyal yàlla moo amut loolu boo gisee conférence guddi yi ma bàyyi ko mooy ñi ma maaseel kenn solotu ci mbubb moom guddi dem ci jàng yi moom waaye sëñ tubaa itam da dul ñëdd asgor topp nit di ko ñëdd sëñ tubaa du ko def mu ngi koy sant bu baax ci relève bii nga xam ni moom la teg ci suñu kanam muy xale yi surtout sëñ Gana mii ak sëñ Abdoulaye Diop Bichri ak ku mel ni sëñ Saliou Samb ak yeneeni conférencier sëñ Ibrahima Fall mii yow nee naa la noo bokk baay xam naa sa papa bokk na ci ñi nga xam ne ñoonu sunu xam nga leen ñi relève boo xam ni da ngeen noo cautionné ci cofeel gi ngeen wan te nii ngeen mel ci man la ci am ci man estime ñoom am ci man considération ñoom ñëpp di ma di ma bànneexoo fu ma leen sax duma ko am xanaa ci rek ci doom yi ma jur maa ngi ñaan ci barke Serigne tubaa Mbakke fu ngeen jëm yàlla na ngeen fa yegg te bu leen pakk fil nii rek la sëriñ tubaa lii la bëgg nit ku osé te boo bëggee réussir ci yoonu Serigne Touba bi da ngay boole yaari yëf dangay am dangay ngay ñime defi te bañ complexe te bul am complex gis nga di sëñ tubaa wax bi sëñ Gana di nekk say diggante sëñ Mor Anta ak sëñ Touba ak mag ñi in kaana aybi zuhdun fi xutaamihimu fa zaaka aybun sa laysa yusidi nee na man ñëpp di war may dox awma ci complexe bu kenn am complexe te nan ñime defi bii nun léegi waxtaane sëñ tubaa yomb na loo ci wax ñu ñu dëggal ko amoon na ay jamono benn organe de presse fi am boo ne sëñ Touba amul morom ñu censuré ko waaye gis nga leen sëñ tubaa fayee tey jii lu la ne man waxtaan yépp laa mën a déglu ki ma gën a neex sax mooy ki wax yu rëy yooyu te kenn du ko dagg kenn du ko censuré koo koy dagg xolu ñi bañ sëñ Touba qualité bépp qualité waxtaan yépp am na na ngeen góorgóorlu bu baax ci fii ngeen teg seen tànk noo ngi sant boroom kër gi sëñ Abdou Samad ndax nag dafa bëgg yoon wi te gis nga nit mën nañ laa wàcc sax nit for la waaye ku sànni sa bopp ku am fulla du la for te moom sànniwul boppam bëgg na li mu doon bëgg na sëñ Touba bëgg na taalibe yi bëgg na jàngkat yi bëgg waxtaankat yi di leen béggee di leen teral di leen loolu am solo la kon nag yàlla na ko yàlla defal jàmm moo bokkam yépp nag te mbokki sëñ tubaa yi njabootu sëñ tubaa gi nii ñu def sëñ Muntaxa yàlla na leen ko yàlla fay noonu de waa daaru minam lanu sëñ Muntaxaay sama sëriñ waaye xoolal li ko bokkam yi def kenn ku ci nekk yéene ko xilaafatoom gii kenn ku ci nekk dar ko li nga am lépp nga dikk ak moom ci yéene ko ndam bëgg ko ku ko ciy xool ca kaw nga koy xool lu mu leble woon rek yàlla fay na ko ko ci bokkam yi ak ci bàyyi taxam yi ak ci rakkam yi ak ci mur saadaxam yi ak seexi sëñ tubaay yi. jërëjëf noo ngi ñaan ci dara daraje borom Tuubaa yàlla nañ fi dajawaat na gën a si déwén kon nag joyeux safar yéen ñëpp noo ngi leen ciy ndokkeel bu baax sëñ Gana euh, di la béggee bu baax damaa laa bëggee a décontracté rek yow xam nga yow <laughs> euh, yaakaar naa ñëpp maa la ci gën a xam <laughs> waaye nag du ma yeesu foofu <laughs> xam moom. ñëpp maa ko ci gën a xam euh, moom <laughs> jërëjëf Serigne Moustapha Samb ci kàddu yu rafet yooyu sëñ Gana nag xam ngeen ne moom ak cofeelam ci Serigne Touba doonut rek lu muy wax waaye lu muy dund la ci xolam te man sama rakk la maa ko yar te loolu moom du ko weddi man maa ko yar xam naa ko bu baax xam naa ne ku bëgg sëñ Touba la ba muy gone ba nëgg ni foo tuddee sëñ Touba mu jooy xam naa ne ba muy tuut tànk laa ko xam waaye foo ma sa tuddee sañ tubaa mu jooy ku nekk xam ne ne émission bi xamutut lu muy wax ndax booba ba nëgëni bi sëñ Boussra di wax ak moom bi muy wax yëpp xelam dafa dem ci sëñ tubaa ak lam doon daj tuuma yiñ ko tuumaal natt yu métti yi nga xam ne nee na daj na loo xam ne du ko nettali daj na loo xam ne nee na lu ma du nekkali maa la askuroo abadan te adduban du ma ko nettali mukk ndax lu ñuy suturaal la xam nga ne loolu métti na kon sëñ Gana lu ngi lay di la gërëm xam nañ ne wax dëgg yalla genn nga plateau bi ndax sa tiofil ci Serigne Touba waye rek nga andi sa kandu tagu jere jërëjëf sant euh, kilifa yu bax yi nga xam ne ñoo doon waxtaan señ bushra ak señ Abdul Abdullah Diop ak sëñ Ibrahim Fall yalla nu sëñ bi fay rek te nangu nu lepp yagal fi sëñ Abdou Samad ba yalla fay ko yenem ci jëf jibu bu jëf fi sëñ Muntaxa defal nu jam assalamu alaykum wa rahmatullah jërëjëf sëriñ euh Cheikh Abdoulaye Diop bisri yaangi won gannar waye da nga ma ci may nak benen plateau ci bir magal ci inshallah rabbi maluko dik gannar dig beug na nga duggu fa ba xamne yor der bu ñuul lu waral ñak jitu lu waral des ak deg yér yor dér bu ñuul du du du du tee li nit ñi xalaat nga di ko xalaat li nit ñi xam nga di ko xam may yàllay mayeetim mu may la ci loolu sëñ Tuubaa ko weddi dugg biir gànnaar dagg buumi jaam yi libéré nit ñi sa kàddu yi mujj sëñ Abdoulaye Diop bi sant bu baax santaat eh, alaaji Busra bu baax kàddu yi mu wax dégg nañ ko bu baax kàddu yi soññee la kàddu yu rafet la kàddu yi encouragement la kàddu yi gën ñoo jañse ci liggéeyal sëñ Tuubaa ah, te dégg nañ ko baax dinañ ko jëfe waaye nu ngi koy ñaanal ci barke sëñ Tuubaa fanam gudd lool ba guddi gi fanam nek kéemtaan te serigne bi defal ko ngeureum ndax ñun ñepp loolu lañu wut yàlla na ko sëñ bi def ngërë defal ngërëmam biir ak biti ñu ngi koy ñaanal baax di sant ci yi rafet yi di santat alaaji Gana mesra di ñaanal bu baax fan gudd te wer ndax jambar jambar la ci yoon yi woo xam ne bi rek lay dund dafa bëgg serigne bi xam nga émission boko ko rek do to xam sax loy wax jall na bu yagg serigne touba mom nak tour rongon ci mom sëñ Fallou nee na ku ko def def nga farata saf ku dumooy li hubbil xadimi fardan arahu kon yàlla na la sëriñ bi fay te gën laa taxaw ñu ngi sant suñu jàmbaar ji nga xam ne suñu sëriñ la suñu soppe la ndax nit bu la jëlee rek yóbbu la baytullaahil xaram wax dëgg yàlla defal na la lépp te sëñ Abdou Samad defal na la loolu fekkoon nañu dem Makka waaye yóbbu na nu Makka te loolu ku la fa yóbbu rek mënatoo koo fay nu ngi koy ñaanal mu yàgg fi lool te wér ci barke Serigne yi waaw ah, di ko santaat bu baax lii alaaji Busra wax moo ne ci moom yoon wi rek la bëgg yoon wi rek sëñ Touba rek lay dund waaw moom jàpp na ni feeg yorul lu bari sax di tuur nit ñi xéewal du sawar a gisee kenn moom bala moo gën a sawar a gisee nit ñi rek mooy xéewal yi bari muy séddal lépp ngir jëmi sëñ Touba kon yàlla na ko sëriñ bii dollee sàmm te yàggal ko yàggal fi sëñ Muntaxa màggal gi yàlla nañ ci àgg ak jàmm te am ci ndam ak tawféex te gën koo waajal te xam ne amuñu lu dul moom amuñu lu dul moom ki dox sa digg ak safara di sëriñ Touba bis bii mu ni sant leen ma ci yàlla moom rek la ñu am kon dañu ko waajal te santale ko ci yàlla nag wax naa démb defe naa ci benn tele nee naa ñun sëriñ Touba suñu gëm ko nekkul condition sunu lëggéeyal ko nekkul ci condition dañ koo jox suñu lépp sans condition lu mën a xew baax na foofu ñu mën a fekk jox nañ ko suñu bopp moo nu gënal suñu bopp gënal na suñuy jëmm gënal na suñuy ruu calcul lépp lañ jox sëñ Touba kon yàlla ñu sëriñ bi defal tawféex ñu ngi sant mbokk yi doon seetaan yëpp di leen baalu ak di la sant yow bu baax ci sa taxawaay di la gërëm ku baax nga ku yaatal nga te lii ñuy def dàq ñu la ko yaa ñu ko dàq sax waaye sa mbaax a tax nga ñëw woyof jël ko di ko séddale nu rafet nii waaye li ñuy def lépp yaa ñu ko gën a xam yàlla na yàlla sàmm la yow it ñu lay sant bu baax a baax. jërëjëf Cheikh Abdoulaye Diop kon mbir maa ngoog yaa bind cëy ak la jër cëy yaa gën a rëy ña naa cëy ak ñañu naa cëy menn mbër nga mu rëy yaa ëmb adduna ji yaa ëmb adduna jee yaa ëmb ñuy ëmb ñëpp ak seen i ëmb di wéy yàlla nañ àgg ci bis baak jàmm te yàlla defal jàmm Cheikh Abdou Samad wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ki Sénégal xewal gu bes tak mo ngi ni bu len ko kenn netti loolu moy safar safar safar safar salatu lisi fi kulli sahrin wa fi safar amani hala mahi ma al habsa wa safar. ki nak di len way di ñaan ngeen di abonné ci suñu site bi di senevision.com te bu len fàttee di bës cloche bi.